lamp yi Tàll lamp yi waay tàll lamp na leer jib na leer jib na leer leer jib na leer nañu commencé leer jib na leer jib na leer jib na leer leer jib na leer nañu commencé leer jib na leer jib na leer jib na leer leer jib na leer nañu commencé leer jib na leer jib na leer jib na leer leer jib na leer nañu commencé salaamaaleykum salaamaaleykum bisimilaay may tàmbalee di door di tàggu yàlla ngee simlaay may door ah buur bi yàlla yaanu moom bisimilaay may door di tàggu yàlla ngee simlaay may door sii dey maa ngi tàggu yàlla ngee di nuyu penkook soow bisimilaay may door bur bi yàlla yanu moom mooy xool li ko neex mu def ko ci jaamam yàlla ñu yàlla aaral boppame tim laay may doo jaajëf bismillah door nañu émission tàlli lamp yi ci Sud FM seen rajo fu ngeen mën a nekk ku ngeen mën a doon nuyu naa leen nii nii buur ci bato salaamaaleykum yéen a ngi ci tàlli lamp yi tàllal lamp yi ci Sud FM lay amee 98.5 tous les mardis mercredi ak samedi nga mën a jàpp Sud FM fépp ci biir àdduna jàpp Sud FM fépp ci biir Sénégal comme bitim réew itam waaye itam boo nekkee ci biir euh, ruq-ruqaat ci biir Sénégal mu jege mu sori mën nga jàpp Sud FM bu dee ca Louga mën nga ñu jàpp ci 93.2 bu dee ci Sky 102.2 asalaamaaleykum mbokki euh, Ziguinchor ñu ngi ñuy déglu ci 95.6 waaye bu dee euh, foofu di Thiès 102.2 waaw waaw Ndar Géej di 93.2 Mbacké 91.2 waaye Kolda 95 point 4 bu dee nag Kaolack ndangaan 94 point 6 waaye fii ci Dakar 98 point 5 si liggéey moo la nekkal ci réalisation bi cabine technique ak euh, waxukaay geeg lépp lépp lépp ak bés bu tombeek yëpp yépp daal Assane Thioune à sa complicité ñu nar a ànd def tàlli lamp yi alors di jaajëfal waa Kédougou ci 97 point 9 waaye Bakel 97 point 5 la bu dee Ndioum 93 point 2 la bu dee Mbour Géej 106 euh, point 4 waaye itam di jaajëfal waa Matam ñu ngi ñuy déglu ci 98 point 4 bu Diourbel 94 point 1 waa Mboro 91 point 2 yéen a ngi ci Sud FM seen rajo si liggéey ci internet bi mën ngeen ñu déglu ci 3W point Sud FM seen rajo point com wéy ma ñëwati naa nag <laughs> Assane. ñëwati naa voilà point final <laughs> bon tàlleen lamp yaa ngi nii voilà tàlleen làmp yaa ngi nii su ma ñëwee damay xappi su ma ñëwee damay bég no stress waaw fii moom nekkuñu fi sax di xoolal di yanu àdduna bi de azu fii lu leer laal américain wuy ma xoola commencé ti naa de asu li nga ma jox nag baax na ci man de boo bëggee dégg dëgg il faut moo ci butal la affaire quoi benn bagage <laughs> américain teel na ah voilà ba xam loolu man man moo tax man man man fi may fi may wokk a baax <laughs> américain Assane Diouf américain xaar ma tuuti wuy ma affaire yi ma fi nekk di guddal jël de wuy ma nuyu naa la yéen ñëpp voilà jiital ci nuyoo bi xalif généraux yi imaam yi jàngalekatu alxuraan yeeg yi soxna yi fu ci waaye mën a nekk ñu ngi lay nuyu di la ziar di la ñaanal jàmm nga yàgg fi te wér di la ñaan nga ñaanal ma ñaanal Sud FM ñaanal senegal ak waa senegal waaw tur wi Sidi Gueye la dégg ngeen ñaanal ma dégg ngeen voilà ma dégg ah ma dégg ayca bisimilah wax leen ma wax amin xama tëj affaire yi ayca ñaan leen amin amin yàlla nañu ko bokk amin amin lépp lu ngeen ma yàlla nañu ko bokk amin amin ya rabal alamina amin asan gaa yi ngi ñaan de taalal sa loxo yi amin amin yaa rabal alamin yàlla yàlla nangu ñaan jërë ngeen jëf kontaan naa ci yéen de <laughs> di nuyu di nuyu ñëpp nag di nuyu itam bu baax a baax njiitu réew mi di euh, président de la république du Sénégal ak ñi koy jàppale ci liggéeyu Sénégal ak euh, ñëpp ñi nga xamante ni ñoom la seqal liggéey bi noonu la nuyoo opposition waaye ñoom ñëpp yàlla na yàlla teg ci yoonu yàlla na seen xol yi yërmande yàlla na lay yàlla euh, xiirtal ci defal askan weeg defal Sénégal yéen a ngi ci Sud seen rajo 98 point 5 noonu la ñuy nuyoo itam waa jàngu beeg fu ñu mën a féete ñoom ñëpp ñi ngi leen di nuyu macha allah seen i ñaan itam soxla nañ ko lool ci réew mi ñi ngi leen di nuyu di leen tàllali loxo nuyu sénégalais yi nekk biir réew mi ak yi nekk bitim réew fu ngeen mën a nekk yéen ngi déglu Sud FM dal leen jàmm ci émission taal leen lamp yi ku yokku cere di dolli ñeex ku wol mburu te du dëkk waaw ku ni rajo ni Sud FM ku ni émission ni taal làmp yi ku ni animateur ni Sidi liggéey barke rasolaay ñëwati naa wuyu ma ñëwati naa ñëwati naa Diop bul ree de Diop bul ree yow itam Diop dañuy liggéey bàyyi ree Diop dañuy liggéey waxuñu fi lu comique ba ngay ree ah ayca ñëw leen 88 la ñuy def 628 98 98 33 841 22 33 noonu la ñuy nuyoo itam bu baax a baax groupe Sud Communication jiital ci nuyoo bi kii directeur général bu Sud FM di Baye Omar Gueye mi nga xamante ni mooy directeur rajo bi moom laay jox nuyoo bi rek ak mu nuyul ma personnel bi ak fu ñu mën a nekk ku ñu mën a doon alors nuyu ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp sans exception walaay ndeysaan léegi nag lu defu waxu waay luy ay di jàmbat. te xam ngeen ni njàmbat li njàmbat li mooy Sénégal bëri na ay problème de bëri na ay scandale de naka la def pour dindi ko naka la ñaa def pour saafara kon naka la ñaa def pour euh, incha allah rabbi génération yi ci yii di ñëw bañ a roy ci li fi nekkoon wala bañ a def li fi nekkoon wala bañ a def li fi defu kon nag euh, li nga xamante ni moo baax li nga xamante ni moo gën mooy Sénégal gi ñoo ko bokk Sénégal amuñu lu ko gën amuñu lu ko gën a kawe amuñu lu ko gën a fort lépp lu waay nekk di def na ci jiital réew mi ndax réew mi kat. moo ñu meññ réew mi kat ñoo ko moom réew mi kat ñoo ko bokk bu ci kenn teg yaa ci ëppale sa moroom ak loo mën a am ak loo mën a am ak loo mën a yor bul jàpp ni yaa ci gën wala yaa fi gën wala yaa gën ñëpp kon nag fii ñu toll ak lii ñu nekk di def dañu bëgg incha allah rabi ci kàttanu yàlla ñu bokk liggéey yàgg naa wax fii ma ni leen. Sénégal gii di Sénégal Sénégal gii di sunu réew senegal gii nga xamante ni euh, moom la ñuy wax réewu teraanga bi réew yu baree bari naw ñu ci lu baree bari nañu fexe ba jéem koo joyanti jubbanti ko lépp loo xamante ni dégg nañ ñu koy def ci réew meek fu ñu mën a nekk fu ñu mën a féetee ñu bàyyi ko te jéem a boole suñuy doole boole suñuy force boole suñu xalaat boole suñu xam-xam bëggante tamit dëgg ànd nag balaa neex muy dëgg ànd balaa neex di bëggante am ca ànd balaa neex. ñu waxante dëgg lu métti métti nañu ànd ci dëgg bañ ànd ci tappale bañ ànd ci naxante ànd jayante euh, wéet tàqalikoo euh, warante wala waxante leneen ci ginnaaw kooku ku jub wala ku baax wala ku bëgg ànd bu baax doo ko def kon nag fii ñu toll ak nii ñuy doxe nii xam ngeen ni euh, ci jamonoy nawet la ñu nekk te bu ñu waxee nawet sama xel man day dem ci sunu mbokk baykat yi te wax naa ba tàyyi man yi am réew mënuñu koo tabax am réew mënuñoo wax développement te nit ña la ñuy lekk wala la ëpp ca la ñuy lekk bàyyeewuñ ko ca réew ma consommation locale boobu bu ñu ko defee dana dimbali sunu ay baykat dina yombal itam sunu industrialisation dina yombal également sunu commerce ci wàllu mbay kon nag réew yi nga xamante ni ñoo am doole yëpp di pays asiatique yi di pays amerique bay ñu nekk di Amérique continent bu rëy boobu ñoom ñëpp ñu ngi doore ci mbay xam ngeen ni li ëpp ci seeni réew sax ñoom di Amérique suñuy maam lañ daan jàpp di leen yóbbu def leen ay esclave ñu dem di bay foofa ñoo daan bay euh, maïs bi daan bay coton bi daan bay café gi loolu yëpp suñuy maam a ko def kon nag ñoom ca mbay lañ njëkkee ba toll fi ñu toll tey jii àdduna toll na foo xamante ne réew yi dese suuf wala réew yi am suuf yu nu bay jafe na jafe na leen ba tax na euh, dañuy mujj dem di jëndi feneen lekk wala di importer leneen di ko indi ci seeni réew euh, ak di exporter maanaam di jël di yóbbu day jël yi di yóbbu dem jële fa leneen indi mu nekk loo xamante ni euh, dafay dafay xaw a sooxe ci wàllu koom-koomu réew mi wala lan nan koy jote day metti ñun nag comme yàlla dimbali nañu am na suuf su doy te ñi ëpp ci suñu population ay ndaw lañu nañu jéem a xool naka la ñuy def pour jàppale leen. fii laa mës a toog bés ma ni euh, dama bëgg ñu xool xalaataat ci wàllu quartier yi wàllu communes yi nan lañuy def ba def ay conseil de euh, de quartier macha allah yàlla def euh, wax ja mel ni bal gars yi utiliser ko mu dox nekk loo xamante ni ci Gaye Ndioré mii la jóge kon ñu ngi sant waaye am ci loo xamante ni itam il faut que ñu xam ni am réew doomi réew yaa ko mën a defar te nit ku nekk. bu demee ba suuf soo su may wax ni la ama toog ci sam réew wala suuf bala la ca ëpp ay étranger nga ko jaay bu yàggee sa di nga mujj di nga mujj sonal saw askan de waaw am na loo xamante ni yenn hectares yeeg yenn suuf yi boo ko nag joxee ku dëkkul ci réew mi yaa ngi lor waa réew mi de lu muy yàgg-yàgg dana répercuté wu ci askan wi kon nag euh, ndax ñoom buñ fi ñëwee di bay wala ñëw fi di def leneen bu ñu paree seenum réew la ñuy yóbbu seen i bénéfice de buñ bayee bay jaay itam seen i réew lañ ko yóbbu de kon nag nañu yeewuwaat bu baax a baax euh, tey tënkuñu kenn ci lenn ndax li ñu war a waxtaan ci Taleen Lamp yi dafa bëri introduction baa ngoog nuyoo baa ngoog defe naa ni kenn ku ne fekk naa la fa nga toog nuyu la jox la cër bi gën a mag cër bi gën a rëy ngeen mën a bokk nag ci émission bi bokk kook man ñu partagé ko ci 88 rek ngeen di jaar mooy numéro bu baax bi nag keneen ku ma jaar jéem a jaar feneen doo ma am doo dégg ngeen di def 628 98 98 wala 33 841 22 33 xam ngeen ni ci bésu tey bii. la ñu euh, ubbi euh, aéroport yi daan nag euh, diggante Sénégal ak yeneen réew yëpp mën avion yi mën naa daw waaye am na ay immigré yu nekk ca bitim réew ni ma kat ñoom dañoo dem ba Italie nekk Italie bëgg a ñëw ñëw Sénégal ñu ni leen nag mënu leen a génn ndax seenum réew moo validé li nga xamante ni mooy dogal boobu kon nag bu fekkee autorités yi yéen ñiy déglu sénégalais yi nga xamante ni ñi ngi nekk bitim réew bëggoon dellusi ci seenum réew dem nañ ba def seen réservation ba dagg euh, billet d'avion ñëw ci aéroport yi ñu xamal leen ni leen mënu leen a dem ndax seenum réew moo ko signéwul lool nag euh, laaj bu rëy la voilà yéen a ngi ci tàlleen làmp yi 98 point 5 Sud FM rajo bu mag bi si Gueye ñëw na wax naa la animateur bu mag bi walaay na ko alaaji xaarim di waxee te it su ma fi jógee samedi laay ñëwaat Hmm. waaw samedi laay ñëwaat te samedi bu ma ñëwee xam nga ni ni may ñëwee dafay garaaw mooy émission boobu ñuy wax jàppal ni émission bi ngay def bu ñëpp dañ koy déglu walaay loo ci war a wax na ko wax ma lépp luy culture hmm. lépp luy aada lépp luy nga ko xam nga xam nga mi nga kon nag ko lépp luñ ci war a wax rek incha allah rabi dinañ ko wax yéen a ci 98 point 5 waaye su ma fi jógee tey jii ci guddi waaye samedi ci ngoon dina ànd ak yéen ci musique gu démb Sidi Gueye animateur bu rajo premier rajo privé au Sénégal. musique gu sama waa ji. ñu ni loo wax mu ni képp ku bëgg a dégg musique gu démb ak tey ci noo ko bëggee ak foo ko bëggee jàppal 98 point 5 DJ Sidi Gueye ki xew ci jamono. marché kone ndaw ñi bëgg ko mag ñi di ko xëccoo mooy animateur bu mag bi na jàpp Sud FM ak Sidi Gueye. Désormais, c'est Sidi Gueye, l'homme jaraaf, qui vous retrouve tous les samedis 14 h dans la vieille discothèque. parce que DJ Sidi Gueye c'est un animateur incontournable il est tellement bien il est tellement honnête il est tellement courageux il est tellement solide s'appelle Sidi et auditrices de Sud FM Sen Radio écoutez DJ Sidi Gueye grand animateur incontournable tout le monde écoute Sud FM Sidi Gueye yaa ngoog réew maa ngoog yaa ngoog réew maa ngoog ku démb samedi bu ñaari waxtu jotee jàpp ñeenti waxtu ngeen ànd seeg Sidi Gueye l'homme jaraaf jaajëf tribune bi nga xamante ni moo di euh, tribune bi di daal leen lamp yi lépp lan fi waxtaanee ci 98 point 5 waxtu yu may wax yéen. mën ngeen a bokk ci émission bi ci 88 628 98 98 waaye itam di fàttali ni Ousmane Tanor Dieng ba mu fi jógeeg léegi def na at euh, nekkoon secrétaire général bu parti socialist ñu koy euh, dellu di jàll euh, socialiste yeeg sénégalais yëpp macha allah di ko jàll président di ko jàll itam ñi mbokkaloon parti yëpp yëpp ak njabootam yéen a ngi ci Sud FM seen rajo noonu la ñuy itam massawo sénégalais yëpp waaye di fàttaliku itam kooku di Ousmane Tanor Dieng mi nga xamante ni. moo nekkoon ci au conseil euh, bi mi nga xamante ni bi mu fi jógee léegi def na un an at boobu mu fi jógee nag ak léegi ñu bëree bëri ñu ngi koy fàttali ko ko jooy ba tey euh, yéen a ngi ci Sud FM seen rajo di ci jaajëfal baax a baax euh, kooku di ñu ni bàyyi xel di Ablaye Wilane waaye di nuyu itam kooku di Aminata Mbengue Ndiaye jaajëfal ñëpp ñëpp yéen a ngi ci Sud FM seen rajo ñu dem jël auditeurs yi ci 88. 628 98 98 33 841 22 33 bu ko defee Assane xoolal ma kóol bi anama waay anama anama anama voilà anama voilà kon magoog magoog magoog yéen a ngi ci 98 point 5 Sud FM seen rajo le choix de la différence euh, ñu war a xool auditeurs yi euh, nu ñu toogee ak lu ñu bëgg ñu ànd ak ñoom lépp lépp di tàlleen lamp yi si liggéey ngeen ci àndal leen mais Assane am benn phénomène boo xam ne man ndekete yëgumoon lu xew ci réew mi ndekete man pour man maa gën a connecté maa gën a nekk au diapason ndekete Assane am na loo xam rëcc na ma xam nga maire yi nga xamante ni am ngeen ay doom am ay sët am ay jarbaan am xale yu jigéen yi ci kër gee xale yu góor yi ku ne yore smartphone di whatsapp ak di twitter xaw ma di tiktok ak di lu ne xale yu ndaw yi xam la la nekk ci seen téléphone yi photo wu yaramu neen di ko envoyé seen far yi ak seen xarit yi maa la wax li man kay lu ma xam laay wax lu ma gis laay wax man daal maa topp ci ay xale xale di waxtaan di waxtaan ba wax njombee man bi ma koy dégg sax pour man ay caaxaan la mais li ma ci li ma ci firnde bi ma ci amaat mooy dama dem ci sama benn booy day defar téléphone moo tax xam lu baax lu ne nan ko waxtaanee waaye lu bon lu ne itam nan ko wax pour nit ñi ba ko booy bi di defar téléphone téléphone bi dafa bloqué dafa télé écran bi dafa toj nee na mu koy changé ma ñëw di ko defarloo ma itam sama téléphone xam nga man day téléphone yi xur dab laa yore waaw <laughs> yu laa yore <laughs> ma ñëw booy bi di defar téléphone bi rek daal di woo kooku ni ko yow euh, numéro bi il faut nga jox ma kotu kii illégal kotu téléphone bi il faut nga jox ma ko ah dama koy ubbi pour xool ndax li ma defar dox na bon sans arrière pensée ah, maa ngi toog ñu ngi toog di waxtaan mu jox ko code bi mu dugal mu génne dugg booy bi defar bës bës ah dugg ci ay galerie ak yooyu fi ñuy def photo ak vidéo gis fa ay njombe yoo xam ni te borom téléphone bi la te xale bu ndaw la bu amee vingt ans ci la yam li ma lay wax ni lu leer laa lay wax moo tax xale yu man dama man dama jommi bi ma ne grand xoolal man ko déet man koy xool du ma ko def man koy waxal li ngay wax may dégg rek taxawal foofu ma taxaw fii ngay wax may dégg waaye xoolal moom bu ma ko xooloo sama bët yi day layoo ëllëg sama nopp yi day layoo ëllëg am na loo xam du ma nangu di ko dégg voilà ak di ko xool man jommi jomeet laa def barke yonent bi Assane mais xam nga àdduna bi toj na fii ñu toll gars yi dugg nañ ci xel yi te teg li gën a garaaw am na série télévisée yu am commencé am ci senegal yoo xamante ni buñ ci waxul dana mujj sànq réew mi sànq xale réew mi ndax li waral am na xale yoo xamante ni dañu te dañu gaaw ci toppandoo xamuñ sax lu ñuy toppandoo lan la maanaam am na ay xeetu langage yu am yu bëree bëri xale yi ñu ngi ko jëlee ci internet xale yi ñu ngi ko jëlee ci téléviseurs yi xale yi ñu ngi ko jëlee ci lu ne lu ne lu ne kon nit ñi nga xamante ni am nañu ay doom nekk ay kilifa bu leen tàyyi bu leen bàyyi de leen wax ak xale yi ndax li ma gis ak a dégg nii ah man de tiit naa man mi am njaboot de tiit naa xaw ma keneen nag voilà booy ubbil téléphone bi auditeurs yaa ngi ci ligne bi euh, ñu xool auditeurs yi am na ci ñu mën a naqasaale nag voilà comme comme si liggéey rek 88 628 98 98 33 841 22 33 dama naroon a am ku ma jël waxtaan ak moom ñu yaatal waaye ma bëgg rek di leen fàttali ni leen bu ngeen amee doom mu nekk gune mu nekk xale mu nekk koo xamante ni da ngeen war a bàyyi xel ci moom continuer leen di bàyyi xel ci moom ndax euh, man tiit naa de ah ah tiit naa de doom. voilà léegi ñu jël auditeur bi ci 88 628 98 98 ñëwal yow asalaamaaleykum noo def. maa ngi nii rek. na koy asalaamaaleykum. ku naqasaalekat bu mag bi nag mooy kii nag ak mën a naqasaale. noo juuf du dem. non Sidi. non waaye bu ma nee wu Sidi waaye bàyyi moo waaye Diouf génne ma ci génne ma ci waxal ak auditeurs yi rek génne ma ci. fii di àdduna bépp nee na génne ci yow ngay génne ma ci rek te nax day continuer dama la dama lay rek demal. waa Siri. waaw. tey moom ci kéwél yi la wax moom ma ne. kéwél Siri. est-ce que xam nga ni hmm. kéwél yi. Hmm. léegi waa ji waa ji nee na na man moom du ma ko woowee ministre man waa ji laa <laughs> moom nee na léegi. jaay nañu ko du euh. da dibi kéwél yi mu ni waaw nee na kéwél yi dañoo dee. si hmm. dee nga xam nga ni kéwél kéwél ya yax yi moo gën a seer yàpp wi. yi moo gën a seer yàpp wi. lan la la. kéwél. kéwél. waaw yax yi kéwél waay waay moo gën a seer yàpp wi. gis nga Sidi yàpp kéwél yàpp njomboor yàpp xam nga yeew mel ni yeew yaa ngi dégg. même kaña kaña mi nga kaña mi nga xamante ne bii dañ koy eh, nit nit ñi moom rek la ñuy bañ a gis am na lu gaa yi di wut ci moom. teewul boo boo boo borom xam-xam yi ñooy dégg xam na xam na bu baax li muy am na am am Sénégal nag xam ne wuñu ak ak baroom parce que bu xonq bi boobu boobu ñun Sénégal baroom lañ ci am. téléphone bi defe naa mooy bu bu xonq bu bu bu kii bu maroo bi am am am réseau weex ci wet gi. jaag bi yaakaar naa du am na crédit man. xam yaa ngi dégg. boo njomboor dafa am ay rëdd ci wet gi bu naat yàppam gaa yi dañ koy wër mhm. mais mais gis nga si sidi mhm. naa la wax leen tey de mhm. tey bii ñi ñi ñi xam ci boo jaloon fi yàpp wi jal fi yex yi di ko jaay ñoom yex yi la ñuy jël leer laa wax léegi nag man damaa wax tey ci benn rajo mani leen mani leen comme comme moom moom nee na léegi ah, ah, ah, dibiwul dibiwul kéwél géwél yi dañoo dee léegi pëlëkëlër sama maam sama maam Basiirou Guèye mhm. lu ma koy ñaan li laay war a sóoli na na fexe ba gaa yi wan ñu métti bi waaw wala ñu wan nañ wan fan fan fan fan lañ ko suul hmm. bu fekkee dañ ko suul wala dañ ko sànni nan na wan fan la yóbbu fa journaliste yi ñu ko génne ko ñëpp gis ko mais Diouf waaw wax dëgg yàlla pour man réew mi fi mu toll ay kéwél ak ay kii man pour man du amul sens quoi ah luy jar trente millions amul xaaral rek xaaral tu Diouf. Sidi boo fayee wax la Diouf nit ñaa ngi accidenté di dee ci tali bi ak yooyu gën a fort nit. waaw mais d'accord xaaral xaaral xaaral ma wax la waaw Diouf da nga may may nag waaw Diouf da nga may may nag dama laa déglu da nga may déglu nag ñu déglu. ah keroog nii nga ma ba pare jigi jigi rek. non dama la yow xam nga da ngaa mën a naqasaale. waaw déglu rek da mën a saale ma lay bàyyi. maa ngi lay déglu. <laughs> voilà mani waaw man pour man réew mi fii mu toll. waaw am na leneen lu gën a am farata am fulla lu dul ay kéwal quoi man pour man. waaw yow génn kéwal ñaata lay jar. waay waay na jar cent millions. soixante quelques millions. quarante quelques millions ah? quarante quelques millions. ah. ci leen wax. déedéet cinquante la ñu wax ne ëpp na ko. gars yi ne dem na soixante. waaw waaw mais. waaw te te six kéwél wax. te am na ñu wax yeneen ñetti yeneen ñetti kéwél yu ñu ñu ma ngi mu ngi fële mu ngi lingeer ko. xawma àll boobu. Hmm. yoo xam ne keneen na ko jël. waaw loolu ci àll lu réew. ci ñoo xam ne nit ñu ay ministre lan ah te léegi ñoom bu ñu sàccee ginnaaw ñu jàpp ko tëj ko. ñoom ñoom ñu sàcc lu toll lool ñaata milliards la. Ah, bari na ay millions yu dul jeex la. bari na hmm. Sidi ñii nañu dimbali na ngir yàlla. waaw yërëm nañu nañu xool réew mi nañu yërëm waay. waaye nañu yërëm <laughs> Sidi xam nga léegi kon laay dem fa laay jeexal. <laughs> <laughs> damaa dégg Macky Sall sànq ay reer maa jàpp. <laughs> mu ni gars yi nañu nañu wàññeeku seen alal yi ñu am ñëw déclaré ko balaa xawma kañ. Ah. ma ne loolu est-ce ko wax. Macky ni woon fii gars yi nan nan ko wax ñaata la am gars yi bañ. waaw moom ci boppam sax sénégalais ba léegi xamuñu lu am mu ma dégg tey ñu ni moom léegi nee na gars yi nañ nan nan wax ñaata la am loolu daa mën a nekk. loolu gars duñ ko def. Hmm. gars yi li ñu ci xam ne ñu yor ci milliards. Hmm. billaahi wallaahi taala bi ñu ko naree wax Sénégal yi démissionné ci nguur parce que leer na ni ñeenti at yi yi des ci nguuru Macky Sall mënatuñ ci am sax xaaj bi biñ ko déclaré Sénégal yi dañuy bàyyi dem noosi. jaajëf lool loolu loolu mooy li wóor. d' accord li wóor mi ngoog ñoo ko déggandoo su FM seen rajo le choix de la différence ngeen mën a def 88. 628 98 98 33 841 22 33 ñu dem jëlandiwaat beneen auditeur asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. mu mel ni euh, déggante wuñu euh, bu fekkee ñu mën ko jëlaat euh, ci Sud FM seen rajo le choix de la différence 88 ngeen def 628 98 98 33 841 22 33 ñu jëlaat beneen auditeur asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. maa ngi lay ziar sëñ bi. waaleykum salaam wa rahmatullah. ci yow la. maa ngi nii rek. naka yi tey. ma ne Guèye Massiré ñaay ci yow la. mbeng mbeng mbeng. naam Guèye. mbeng mbeng. namm naa la Guèye. maa la raw mbeng naka bokki ndax. yaa ngi ci jàmm. waaw maa ngi sant. yal na yàlla may jàmm may nu ko may ko mbooloo mu jullit. tey jii nag nuyoo ki ma lay jëkk andil mooy nuyoo soxna Ndeye Adja Ndeye Diagne Adja Ndeye Diagne Siir Thiès mag Bala Diagne Siir Tata Fatima Fall mhm. maître huissier di ma nga lay nuyu mhm, maa ngi koy fay tata Aliou sa Maram Fall Bola Maram Fall mhm. tata Maram Fall Fatimata Fall Sarmana Taye Sarxama Tayer Njéema Taye waa Barema Tayer Njéema Taye sëta naata be xewa baag naata e ba gërëm na ndey jaañ siir gorom gërëm na ko ndey jaañ siir dafa nekk jigéen ju baax di magu gala jaañ taxaw taxawaayu jigéen ju baax di mën a boot ñépp di yaakaar ndey ñëpp yaatu muñ ca yaa di kilifa gu mat kilifa di jigéen ju mën góor di jigéen ju gën góor ngeen boobu nag li mu la waxoon biig maay géwalam ndax tudd na sama tante Astou Gueye tudd sama tante Soxna Faal tudd maam Thiara tudd maam Aale tudd na Këcci Mbaye sama rakk tudd na Soxna Faal sama tante ni ko may gima judóom abi gima ko dem ndam ndam baaba ko dem ndam ndam ji faat ma ni ko yëpp ma nga def songum xeex biram dem baa nga dis bitir maa farba yaa ki njaañ njaagum jógu digéey seen bàyyi def salaatey ndeer déggal lii ñoom fara wadd njaag daara wadd njaag ndata wadd njaag kokko wadd njaag ni ko mbokkum tóora wadd mooy mbokkum xadijat wadd mooy mbokkum ngoose wadd mooy ngot mbokkum màggat wadd mbokkum baale wadd ak ndumbe wadd hmm? ni ko mbokkum faatu wadd mbokkum tóola mbokkum sindu ni ko mbokkum ñëpp wiyeema jur pamfal yi satiirim fara waddu njaag daara waddu njaag ndate waddu njaag koko waddu njaag suquma nga def seen monsieur dem de baa nga disciplinement farba yaacum jaag njaagum njógu digi seen bàyyi de caratey ndeer ni ko moom mooy mbokkum may sa coro saar disi coro saar maane coro saar këli coro saar bafa coro saar may sama taas saar mi disi ci ngéy ngéy ni ko amul moom ngéyeen boobu la ni ko may jóoru juddoom li mu wax juumul ni ma nekk géwélu Fatima Fall ci sama kër baay noonu laa nekk géwélam ci sama kër yaay maa ngi lay nuyu du nuyu mi du ñu ngi lay fay la wax ne nanu muñ ngi lay fay boo demee ba am jiw baax da am doom ju baax ku baax a jara boo amee lu baax xam nga lu baax te lu baax du baax ba weesu baax maa ngi nuyu doomu yi may déglu yëpp diggante corom ak waa loog ba ba ca Casamance kon nag fii ji ca kaw ca kanam jàmm rek nga yaat di nuyu jigéenu mareenu lamp yi maa ngi koy nuyu di nuyu bi ñaari yoon ni ko may géew lu juddoo mi wax géew mul ni ko ca kaw ca na yàlla yokk fanam yokk manam danaa dellu si dama doon nuyoo rek di la wax mbaax moom soxna su baax. jërëjëf ñu ngi lay gërëm góor gi jërëjëf ñu koy gërëm ma ngay wootee Ndar Géej di nuyu bokki Ndar yëpp El Hadj Alé Mbaye nga di euh, kilifa ca Ndar ñu koy gërëm di suñu xarit di góor goo xamante ni bëgg na lool li ñu nekk saa yu duggee itam du ñàkk mu ñuy ñaanal ak di wax itam euh, mbaaxu nit ku baax rek ngay wax waxu baax mbaaxu keneen waaw soo baaxee di nga mën a wax mbaaxu keneen waaye am na ku baax ba dem boobaak léegi def na at maa ngi koy wax léegi bi may nuyoo ci euh, émission bi di Ousmane Tanor moom itam xam ngeen ni ñu bëree bëri ñu ngi doon fàttaliku jëmm jooju waaye itam jaar-jaaram am koo xamante ni te àndandoom la moo nekk nii ci ligne bi ci téléphone bi ñu jël ko di euh, Abdoulaye Wilane monsieur le ñu ngi lay nuyu noo def yow. asalaamaaleykum. waaleykum salaam monsieur le maire. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala salaam wa rahmatulahi taala wa barakato. taal na lamp yëpp tàkk <laughs> na lamp yëpp takk maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ablaye. di nuyu suñu mbokk yi nga xam ne ci barab yu fasantikoo waaw. ñu ngi lay gunge di teewlu waxtaan wi. jërëjëf. maa ngi ñaanal yàlla wér. amin teraanga ak sutura. amin amin mbooleem koo xam ne nii auditeurs Sud FM seen rajo nga. Mhm. ci biir réew mi wala bitim réew mi. dëgg la dëgg la. di nuyu mbooleem ñiy liggéey ci rajo bi. dëgg la ñu ngi lay fay. ci niveau national ak ci chaîne décentralisée yi. merci beaucoup ñu ngi lay fay bu baax. di leen jaajëfal nag. Mm-hmm. avant lépp. Mm-hmm. ci taxawaay bi ngeen am ci éveil des consciences sensibilisation. Mm-hmm. mais di leen di leen di leen ñaax. di rafetlu seen liggéey. surtout. ci weer yu ñu génn. mu soxal xeex mbas mi Covid. Mhm. mbokk yi bu kenn fàtte ne Covid mi ngi ba naka ni te virus xeeti microbe la buy joxe jàngoro yoo xam ne dañu dëgër bopp. Mhm. ku leen di xoolal hépatite ak xeeti hépatite yépp ni ñu dëgëree jafee faj. Mhm. mbaa nga xool sida ni mu jafee faj. mbaa xool euh, grippe. ak xeeti grippe yëpp ni mu jafee faj. Hmm. maa ngi ñaanal yàlla ñi tawat. Hmm. ñu wér bu mu am benn jeexital bu lore ci ñoom. amiin di masawu fajkat yi yëpp. Hmm. waaye daal di rafetlu liggéeyu rajo yi rawatina Sud FM seen rajo. jërëjëf Abdoulaye Wilane ñi ngi lay gërëm yow itam bu baax a baax ci euh, bokk gi nga bokk du tey du du tey euh, ku ne xam na ni fidèle auditeur nga bu émission tàlleen làmp yi daan ci participer itam daan di déglu ba tey waaye tey jii dañu nekk ci euh, fàttaliku sa xarit ba sa àndandoo ba nekkoon secretaire général bu parti socialist di Ousmane Tanor tey jii euh, Aminata Mbengue Ndiaye wuutu ko ci toog gi waaye itam ngeen nekk ay àndandoo yoo xamante ni am na lu ngeen namm am na lu ngeen bëgg itam pour réew mi tey itam kooku nga xamante ni moom ngeen nekkaloon am na lu mu leen jàngal ci wàllu politique te gis nañu tey jii ci wàllu politique rawatina ci réew mi ak ni muy doxee. Euh, politique gi yëngu na ba tax na ñu baree bari am na lu ñu war a mën a jàng ci politique te xam ni politique lépp bonul politique am na lu baax lan nga ñu ci mën a wax loo xamante ni Ousmane Tanor Dieng daan la leen ko wax tey la def at ci suuf yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana lan lay doon. yàlla na ko yàlla dolli njëkkal ak yërmande te yéege ko barzak la yi moom ak ku fa fekk ak ku fa fekk lu waay di wuyoo nag da koy niru. ba tax na su sama sago. Mm. du ma sokk kenn ci wax ji. Mm-hmm. bugguma leble bor ci Ousmane Tanor Dieng. Mm-hmm. bugguma bor ci Ousmane Tanor mm-hmm. waaye gannaaw ak diisu. Mm. ah ah addiinu ah, nasiha. annaasu nasiha. maanaam mbooloo. Euh, doomu aadama yi ak diine. digaale mm. laante biir la te loo ci mënti dégg suñu boroom moo njëkk wax ne nañu roy nit jéem a mel ni moom mu dalee ko ci rasulullahi xayrul xalqilaa kon mu mel ni mm. euh, ala kulalin nit nitey garabam waaw suma sëriñ bu màgg bi bu baax ba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mhm. radiyallahu taala doon na wax ne hmm. soo wóolu leen teg nit mu mu bàyyi soxlaam faatu ndax ku dee amatul soxla mhm. mais da ngaa war a bàyyi seen soxla taxawu ko ba jébal ko boromam hmm. sax ci di ko ñaanal mhm. loolu ci jamono hmm. suñu bàyyi alxaaji mbay doon de mbay yàlla na yàlla yeesal njëggal. amiin ak yërmande ci moom. te dolli leeru bàmmeelam. amiin doon na wax ne bu leen di fàtte di ñaanal. xalifa hmm. mbay mi fi nekkoon. Hmm. yore xilaafa foofu rek ci gàttal. yore xilaafa wallaay. kon Ousmane Tanor li ñu ko deseel. Hmm. ñaar la. benn bi mooy sax ci di ko ñaanal. ndax ku ku ko umpale woon bi muy dund. Hmm. bi mu faatoo. Hmm. yéemu nga ci seede yu bokk jubluwaay. Hmm. te wuute fuñ jógee ko ak suñu jógee. jëm ci moom. loolu nag su amee du juddoom du melokaanam ci der du alalam du xam du leneen lu dul jikkoom. dëgg la. ñu ciy sargal ay am hmm. ak ay bokk bokkam ci meen ak ci géño hmm. waaye di ci sargal bu baax ñi mu tàbbi woon seen loxo ci liggéey ak jaar-jaar. dëgg la. loolu moo tax ñu war sax di ko ñaanal. Hmm. ndax xale yi laata xale yi sax jigéen ñi. xam ne jigéen ju baax moo jur ko mel ni Ousmane Tanor Dieng. d' accord euh, yaa ngi wax ci wàllu gune yi di wax wàllu euh, jigéen ñi. te réew mi fii ñu toll. Euh, am réew loolu laa bëgg donc alors. xam nga mag ñi tey gànk nañu. Hmm. gànk xam nga hmm. xam nga gànk. gànk. gànk gànk G A gànk. mooy lan. <laughs> mooy bu doon bant la ma ne bant bu wow la ah, seen wàll wéy na. mu xale yi maanaam bant bu wow boo ko bëgg a mu damm. wax nga dëgg de. xale yi nag ak jigéen ñi ndax baatub jigéen li muy tekk mooy jëggaani ci kenn ci kenn jëggan. Hmm. soo bëggee ëllëg Sénégal mel lenn ni ci lu lu yiw lu rafet lu baax. Hmm. da war a investir ci tàggat ak yee. Hmm. jigéen ñi. waaye soññ ak a tàggat ak a yar ndaw ñi mhm. ndegam xaleel njëmbatu tey keppaarug ëllëg mhm. Ousmane Tanor Dieng jikko ji moo tax comme ni suñu borom wéyee woon rasulaay ci jikko ji tagg ko alors kon nag ñun li ñu war mooy ñaanal ko waaye seede ci moom jàngee ci moom royee ci moom mhm. ma ne bi mu duggee ci liggéey ba bi mu ñu ko noppee gis kenn fàttalikul wax ju ñaaw wax ju yàq nit wax ju lor nit jëlee ko ci Ousmane Tanor Dieng. dëgg la. te ñëpp dañoo yéemu ci ni mu amoon ay diggante ci nit ñu wuute péete ak euh, wirdu politique mu mel ni son exquise urbanité. Mhm. son sens élevé de l' état de la république. sa discrétion légendaire sa son humilité mmh. le caractère secret pour ne pas dire introverti de sa personne mhm. loolu yëpp dañ ko war a tàggat jàngat ko d'accord mais mais boobaak léegi dem na Euh, metti na waaye parti baa ngi continuer di dox itam mi ngi nekk en allié ak euh, le président de la république waaye lan lan lan ginnaaw demam nan ngeen organiser woo ak lan ngeen fexee def pour euh, jàppale président ci wàllu liggéey réew mi ak li lan ngeen di wax waa réew mi nga xamante ni. am nañu yaakaar waaw am nañu yaakaar ci yéen. ñun jàppale wu ñu président. Hmm. suñu bopp lañuy jàppale réew mi la jàppale. Hmm. ci naka ci naka. ndax Sénégal moo ñu ñor te dama jàpp ne kuy def politique wala ku yëngatu ci réew. pour hmm. ñoŋal sa nekkin ñoŋal nekk ñu doomu aadama yi jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi. Sénégal moo tax sénégalais yi ñoo tax. ki yàlla rang nag fas sas ko. Mhm. rawatina nga bokk ci ñi ko samp ne kii day jàpp naa ne moo gën ci jamono jii. Mm. moom la ñu war a jiital. Mm. soo ko wet jiitalee ndegam nit du weddi boppam wala boog gor. Mm. gor gor laa wax de. du weddi boppam ah suñu borom mi wax ne yaa ayyuhal lazina aamanu aaminu. la muy xaar ci yow ñi nga wax ne lii moo baax lañuy la ñuy xaar ci yow mooy nga jëfee ko. ba wax ak jëf dëppoo. Mhm. diirub nag li nga xam ne moom ngeen digaale ak sénégalais yi contrat boobu. Mhm. kon ñun sunu parti li mu wane ci Ousmane Tanor Dieng. Mhm. ni nit mën naa jëriñ réewam ci nguur yore nguur di ko doxal. nit mën naa jëriñ réewam ci bu yoratul nguur nekk ci opposition nekk ci kujje bi te war koo sellal. loolu waral ñu théorisé woon opposition républicaine. doon cultivé di jàngale conscience citoyenne ak loyauté républicaine. Mhm. bi ñu dellu siwaatee ànd ak réew mi. Mhm. ñu ànd ci ngor. ak laante biir ak xam ne. ñu bokk jamono bokk sas dañoo war a boole seen ay koj ngir mën a wëgg. Mhm. wëgg bu rafet. ñun wane nañu ne nit naa jëriñ réewam ci fànn boobu. d'accord euh, loolu dañ ci ko ci war a jàngatee waaye nag. orma. kersa. njombo. ak maandu. Hmm. doylu. Hmm. mën nañ ko jàngee ci Ousmane jaajëf Sidi. waaw Ousmane a ngi génne àdduna en à l'âge de soixante douze ans. Hmm. fekk na moo xoon ne dootul nekk candidat pour di réewum senegal barki démb Côte d'Ivoire premier ministre ba gaañu. soixante dix sept la am te de moom lañ taboon fas yéene mu nekk candidat. ma waaw. àdduna kenn du ko jeexal. te dafay gàtt te loolu Senghor waxoon na ko bi mu bàyyee nguur gi te amuloon soixante-quatorze ans. Mhm. ma ne li nga xam ne ni moo jar a wax. Mhm. mooy ñun ñi nekk ci jamono. Mhm. ndono li liñ jamonoonteel mën ko def. nañ ko def ngir mu yiw. ngir du ñu jépp ñuy def politique ndax ñu ñuy jéppante ñoo jéppante. nanu fexe it ba. kenn ku ne booy tibb dara di ko sànni sa morom na nekk lu set. xastante saagante xaxarante loolu du politique. déedéet politique da ngay yar sa njaboot. tàggat leen ci débat de société ak intérêt Sénégal. ak xam-xam. xam-xam tegu jikko bu rafet ñëw. Mhm. ñi mën laa dénk naw la nga def luy indi trace ak marque surtout des ci histoire doo dee duñ la fàtte. lii mooy li nga xam ne nii moo tax. Hmm. ñu yàlla ràng cëral leen nattu leen. Hmm. seen tur gi des ci histoire ni am wuy ak manoore d'accord léegi euh, Abdoulaye Wilane maire Abdoulaye Wilane nekk koo xamante ni àndandoo Ousmane Tanor la woon moom la ñuy waxtaane waaye bu ñu duggee itam ci wàllu politique nga nekk un maire nekk itam koo xamante ni euh, jaar nga ci post yu bëree bëri yoo xam occupé nga ko ci réew mi xam nga bu baax a baax lan mooy politique parce que acteur politique nga te tey jii bu ñuy waxtaan ci wàllu euh, politique xam nga ni réew mi boo waxee ñu ni politiciens yi daal di am fu leen dëkkale te pourtant xëy na ñëpp meluñu noonu ndax yaa ngi wax léegi ci wàllu jikko ci wàllu royukaay euh, ci wàllu melokaan nga koy wax léegi kon nit ku nekk war nga am benn jikko boo xamante ni euh, da ko war a wane ci sa cadre liggéey danga ko war a wane ci sa cadre bi nga nekkee ba nit ñi mën la caa naw waaye tey bu ñu gisee safaan ba itam ba dégg ay kilifa yoo xamante ni dañu nekk ci wàllu politique ñii di saagante ngay dégg ay scandale euh, fi nit ñi di xaar politiciens yi dégguñu leen fa te politiciens en général ñoom ñooy ñëw dagaan baatu askan wi ñu jox leen ko ñu délégué leen sunu ay pouvoir ñooñu ñooy tourné jël pouvoir boobu def ci lu la neex baanaam def ci lu leen neex booy dun toppatoo askan wi ni mu waree la ñu waroon def pour askan wi duñ ko def est-ce que ànd nga ci tey jii ñi nga xamante ni maa ngi koy wax démb ma ne fa am ñoo xam ni dañu am xam-xamu liggéeyal réew mi te mënuñoo dajale lu tollook fukki nit. léegi dañ leen di obligé ni leen dem leen ngeen politique yi bu ngeen ko deful da ngeen di perte seen poste dañ leen di sanctionné alors nga bëgg jël kooku génne ko te moom yaakaaru woon lu dul saleeram am yam ci liggéey njabootam këram jàkka ja sport dem seeti ay xaritam ak i mbokkam nga bëgg ni ko il faut nga rassembler ay nit pour am base boo ko defee loolu bu këppee kees ëllëg yaa ko këpploo kees bu defee scandale yaa ko defloo scandale te loolu dañ ko seetlu léegi ci biir réew mi ñi am ay poste de responsabilité yoo xam dañ leen di pousser à ce que ñu dem nekki politique donc fàtte askanu askan wi ndaxte dañuy farak président bi leen sant loolu loolu lan nga ñu ci mën a indil ak lan nga ñu ci mën a tontu. alors ah, doomu aadama de mënta bañ ñu dendale ko wala ñu tëkkale ko waaye warta nangu yi ñuy yemale ko wala nangul yem li ma lay jox comme exemple mag ñi laa bëgg ñu bàyyi xel wax njàngaleem El Hadj da baax. Mhm. daan na wax ne kilifa du ragal njabootam. waaw waaw. kon nag mag ñi tey ñi fi des sas la ci ñoom warugar la ci ñoom ñiy tàggat xale yi di wax ak ñoom di leen fàttali démb di leen jàngatal taxawaay ak deftefu mag ñi fi jiite woon ak ñu mën ko comparer ak li fi xew. ndax faaw ñu dellu ci fondamentaux yi Sidi. waaw Ablaye. président Senghor. Mhm. li mu fi nekk fukk ñaar fukki at ba bàyyi réew mi. Mhm. ban alal nga ko fi déggal budul daal les dents de la mer. <laughs> dara. bon président Abdou Diouf. Hmm. loo ko fi déggal ci alal ju am. dégguma ko de. bon ma ne suuf Sénégal. Mhm. diggante deux mille ba tey. coow yi fi jëpp ñi naan scandale foncier. pasar pasaree. Hmm. tong-tong saax hmm. saaxe day yàq sax perspective ak plan de d'aménagement réew mi. Hmm. ba mën a yëkkati ay fitna ci diggante ay xeet ay waaso wala ay nit ak seeni kilifa. loolu lu ko fi indi dégradation des mœurs. changement de paradigme. et de référence. léegi xaalis. ay milliards ngay dékk wala ay centaine de millions nit koo xam ne ba mu tàmbalee liggéey léegi matul fukki at ñaar fukki mu dajale ko tëdd ci ay kër yoo xam ne nii na mu amee jaaru yoon ñaata ministre seen Abdou Diouf ak Senghor ñoo dem retraite wala liggéey ba bàyyi te amuñu ay kër wala sax dañuy tubaranke hmm. benn bi ma ciy tudd ñu wax sama mbokk la mooy Jéeri Koli falaa yem du ma wax turam Jéeri Koli la tudd yoroon na fi compte boo xam ne nii bu la si ñu jox laay million li mu kenn mënu laa ne la moo fi bàyyi alal ji hmm. ma ne lii laa. ma li may wax daf ma war ci réew mi te bëggumay tooñ. Hmm. waaye. Hmm. yow boo war a nekk exemple royukaay. da war a bàyyi xel ne senegal Sénégal yëpp ci ñi liggéeyal senegal ñu bëri ci ñoom bëri na fonctionnaire yoo xam ne liggéey nañu ba retraité amuñu ay kër amuñu kër sax mbala boog seen pension la ñuy dundee. ma fàttali ne ne Serigne Fallou Mbacké. Mhm. radiyallahu taala anhu. Mhm. bi mu génnee àdduna. nee nañu bi ñu ko menacé góor ñi ñëpp la ci doomam ba góor ñi kon amuñu loo ëpp dix mille franc jigéen ñi neuf mille franc. Mhm. CFA. Alaaji euh, Serigne Abdoulaye naka noonu. dégguloo tey njabootu Serigne Saliou mi daan joxe ay milliards di ko jox réew mi waa daf ko def ci Touba ñu ne mi ngi ci xaalis bu dee gàññi. dabaax mi nga xam ne ni ñu koy jooy ba nekk ni te moom lañ suul ci xol nit ñi. Hmm. kazaalika naka noonu. Hmm. waaw kon nag dama ne réew mii nga dégg ñi naan diw am nay at ràññeeku na. Hmm. te amuñu lu ñuy waxtaanee lu dul ay saagante ak kastante te dama ne am réew. wala mbooloo. wala am pénc. bu fa ay góor ak jigéen bu nekk mag dajee. bu fa kenn sàgganoo ñëpp sàgganu nañ. te weerante li muy indi mooy xaaw went su dara mooy weerante. ma bëgg ñun ñëpp ñu jàngee ci demuk Ousmane Tanor Dieng demuk Amadou Gon Coulibaly hmm. demuk nit ñu baax ñu fi amoon Serigne Cheikh Serigne Abdou barki démb Serigne Pape Malick Sy yal na yàlla yokk leen leer ak njéggal te tabaleen aljana xalifu Ndiassane ñu jàngee ci ñoom ñëpp xam ne àdduna yàggul te nit nu muy adduna lu muy yàggati yàggati di da ko gën a yàggati te dama ne juddu ak faatu mu ngi mel ni diggante liqaam ak julli diggante liqaam ak julli yàqook yàq xaju fi mm, mm, mm, yaa ngi dégg li ma bu baax a baax a baax a baax dama ne ñun waa PS ba ñu ku ñu tëkkaleeg nit waaye ku ñu tëkkaleeg nit duñ nangu ko yemale ñoom moom jërëjëf xoolal suuf si fi bàyyi xoolal alali réew mi ni ñu ko fi bàyyee xoolal rapport bi suñuy njiit yëpp amoon ak xaalis amoon ko ak pouvoir amoon ko ak askan wi ak sañu naw lañ doon këccool nga xool ko xool ñii ko sekkal ci langue politique bi. Hmm. ma ne ku ñu yemaleeg ñoom nanguwuñu. d' accord euh, Abdoulaye ñu bàyyi la ñaari question rek ñu soog laa yeew yi ndaxte am na ñeneen ñu nekk itam ci ligne bi waaye li nga doon wax mu am solo te da nga di euh, ko xamante ni da nga yàgg fidèle itam ci émission bi di déglu rek toog di ñu bàyyi xel waaye tey jii gis nañu ni euh, seen seen lëkkaloo ak président de la république lëkkaloo boo xam seen kilifa ka dem moo leen ko santoon lan moo ci seen taxawaay bi ci topp itam am nga rajo ca Kaffrine euh, programme yi FM da nga koy synchro wala doo ko synchro wala ban ban rajo ngay synchroniser information yu yaatu yi. dañ koy synchro bu baax a baax waaye li ma la bëgg a wax mooy. Hmm. na na nit ñi di wax astafirullah bu ñuy wax ci Tanor Dieng ak parti. Hmm. Tanor Dieng en 96 bi ñu koy fal premier secrétaire. Hmm. parti bi moo dem congrès de rénovation de culture ñu ne léegi dañuy war a def refondation. Hmm. boobu ñu ngi bëggoon président de la République bu mu nekk ci njiitu parti. Hmm. waaye comme ñun dañu amoon démarche par étape. di dem à dose homéopathique vers l' assainissement des mœurs politiques. Hmm. ñu ne lañ def président Abdou Diouf président parti bi mu am fonction honorifique. ñu jox la vie quotidienne du parti ñu jox ko premier secrétaire. nit ñi ñoo ko proposé joxoñ ko. Ousmane Tanor Dieng mu wóolu ko bëgg ca alors Ousmane Tanor Dieng moomu. Hmm. mosula yor cëggal guyam di dogal ne togg leen ma problème bi ñu mos a yëkkati dañ koy waxtaanee poser question base bi coordination yi. Hmm. ñi répondre ñi del ko synthétiser ko. Hmm. dañ ñu daan wax ne ñu seet leen li ngeen may dugal bu ngeen ma ci dugalee du ma dellu gannaaw ndax man su waxee kaddu su ma waxee nit. damay sàmm sama kàddu. surtout. moo ñu doon wax nañu ànd yi ñuy ànd ci CPC ci CPA Front Siggil Sénégal taxawu assises nationales yi Benno Bokk Yaakaar ba ci grande coalition bi ñu nekk nee na waa Parti Socialiste gannaaw ñoo soobu dugal ci suñu bopp nañ fexe ba la koy yàq bu mu jógee ko ci ñun congrès bi investir Macky Sall congrès si si parti bi yëpp naam Ousmane d'accord na ci. gisoon na ni moo loolu moo gënoon ci intérêt parti bi waaye militant wu parti bi ñi des tey ci àdduna ñu ñëpp ñoo ci àndoon d'accord ba mu jaraloon ñu sax ay tàqalikoo suñu biir parti. Hmm. ndegam nag nit du gor du weddi boppam mandat bii deux mille dix-neuf ba deux mille vingt-quatre. Hmm. ci njëlbeen ga ba ci la. Hmm. lépp lu ñu ci def daf ñu engagé daf ñu impliqué daf ñu res dañ ci nekk responsable et comptable un euh, investisseur parti politique pour un candidat. comme ni ñu ko doon defaree Senghor ak Abdou Diouf te doon ko jéem ak Tanor. Hmm. ça vaut accord politique et programmatique. leer na kon nag. Hmm. ndegam kàddu shahada mooy def nit jullit. Hmm. boo jullee boo wooree boo sarxee boo ajee makka amul lu mu yokkal yàlla te boo ko deful amul lu muy wàññil yàlla. yow mi joxe sa kàddu ne yow ashhadu an laa ilaha illallah waxdahu laa sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yow yaa ko war def pour sa bopp sa compte bopp. pour ëllëg yomal xiyaam nga yaakaar ne bu weesoo njëggalu yàlla ak yërmandeem loolu mën na laa ràmb mën na laa dimbali kon nag da nga am kàddoy ja mooy nit ñun sunu choix ci benn bokk yaakaar li muy tekki am na solo te ñun ciy waxtaan ak ñun bokkal wérdu politique ak ñun bokkalul wérdu politique. jërëjëf kon nag qui peut le hmm. loolu moo tax. ci hmm. biir parti bi. Hmm. na socialiste yi dem seen dëkk waxtaan ak seen i bokk ci seen i quartier ci seen i village. seen i grand place ba seen i mbokk doylu leen wóolu leen topp seen gannaaw bu boobaa parti bi am doole kenn ku ne bu fekkee parti bi am doole ci dëkkam parti bi am doole Sénégal yëpp su boobaa nag ñi am ay parti yu ko ci PS waaye gannaaw mën nañu ñi ak ñun bokkulul wiir di politique dana jaadu ñuy waxtaan ak ñu kenn ku ne jàngee ci ñi fi jaar ak li ñu yàqal ak li ñu tëlee ak li ñu lajj ak li ñu siir ñuy waajal ëllëg ndax kat ëllëg du añ reer waaye lu ma ta jërëjëf Abdoulaye Wilane euh, FM seen rajo ëllëg añ du reer waaye lu ma ta sedd la ñu ngi lay gërëm bu baax a baax te di la jaajëfal dellu itam di la jaal ak masawu ak euh, kooku di euh, usmaan Tanor Dieng ñu ngi lay jaajëfal gërëm sénégalais yëpp mhm. ci ñaan yi ñu wéet ñaan mhm. ñu kuréelu ñaan te sàmmoon teg dig digley docteur yi maa ngi sant képp ku ñaanal Ousmane Tanor Dieng mhm. di leen wax ne nañ ñaanal yàlla mucc wér ak gudd fan waaye yàlla ëmbañu sura saxal ñu ci teraanga àdduna ak alaxira maa ngi ñaanal kilifa dina yëpp di wax taxal leen làmp yi. na làmp yëpp tàkk. <laughs> Abdoulaye Wilane ñu ngi koy gërëm bu baax a baax euh, moom itam di koo xamante ni dafa bëgg lool li ñu nekk di euh, émission Tàllal Lamp yi ci Sud FM seen rajo ñu ngi koy gërëm bu baax a baax di meeru Kaffrine bokk ci euh, cour di kilifa ci parti socialiste bu Sénégal yéen ngi ci 98.5 xanaa rek xoolandi beneen auditeur di ko gërëm moom itam bu baax baax di fàttali rek ca Kaolack yéen a ngi ñuy déglu ci 94.6 bu dee ca Kaffrine fréquence Kaffrine waroon naa waroon nga ma ko wax de Ablaye fréquence Kaffrine euh, Sud FM Kaffrine war nga war nga ko wax de ah xaaral loolu xaara moo jël la xaa li xaaral lii eh, lii scoop la lii foofu ñu waxaat ko ci kaw. <laughs> loolu loolu intérêt bi Ablaye Ablaye li nga wax léegi génnul da nga commencé ma ni la fréquence su euh, Kaffrine bi lan la. alors bi. Hmm. dafa bëri parce que dañ leen di jël ci rajo communautaire u Kaffrine FM waaw waaye li ma leen bëgg a wax man li ma itteel loo xam ne fii la fii lañ ko waxee ci taal leen lamp yi waaw Sud FM nañu ñëw nañu bind rapidement ñi may leen pàkk biir Kaffrine waaw ñi am fa benn station boo xam ne nii mën nañ ci def ëllëg télévision mën nañ fa def journal bi mën nañ fa def rajo bis ni tey sotti na ndax Kaffrine hmm. mooy avenir u Sénégal dëgg la mooy xolu Sénégal mooy selebe yoon bi dëgg la et sera à Kaffrine par Kaffrine et à travers un Kaffrinois. Ablaye <laughs> <laughs> Wilane jaajëf en tout cas merci ñi ngi lay gërëm personnel bi yëpp a ngi lay gërëm ndax euh, lii nga ñu yëkkati wax ko rek seede ni da ñu bëgg may pàkk bu rëy foofu ñu def station bu mag ñi ngi la ciy gërëm bu baax a baax di la félicité li mooy waaw ñaanal yàlla ñiy liggéey ci rajo bi yëpp hmm. seenum njaboot di am jàmm di wér amin amin amin bu seen njaboot amee jàmm di wér seen warugar ci kër gi mat. jigéen hmm. di gën a tal soxlaay nit ñi ak ittey nit ñi ci yee leen. dimbali leen xamal leen tàggat leen loolu rek a ñuy teel loolu rek ñuy teel yaa ngi ciy contribuer loolu rek a ñuy teel. jërëjëf jërëjëf Abdoulaye Wilane jërëjëf Sud FM seen rajo le choix de la ñu koy gërëm bu baax a baax dem jëleen di beneen auditeur ci 88 628 98 98 33 841 22 33 kon loolu du tardé di leen ko waxtaanee waat incha allah rabbi nee na ñëw leen ñu ca Kaffrine ubbi fa benn station bu Sud FM dina nekk incha allah rabbi yàggatul euh, noo def yow ki ci ligne gi ki ci topp asalaamaaleykum. walaay dugg nga yaa ngi ci biir a biir noo def asalaamaaleykum. maaleykum salaam ngi lay delloo ziar Ndoye. ak waaw ñu ngi sant yàlla alhamdulilah. amee ah, di xaar rek. waaw waaw waaw looloo taxoon ñu bàyyi ko rek ñu bàyyi ko mu wax. Mm-hmm. man daal maa ngi lay ziar maa ngi lay delloo ziar maa ngi lay delloo ziar. di nuyu di nuyu Aliou Mbaye. Mm-hmm. di nuyu Maodo Faye. waaw a sama ustaas yu jomba ñaaw yi di nuyu aussi ustaas Aliou Sall. Mm-hmm. di nuyu ñoom euh, kii euh, comment dire Pape Laye sama gars yi macha euh, normal. waaw Pape Laye ku baax la. waaye vraiment waa ji baax la. ñoom ak Thion ak Koungheul dañu baax de. waaye vraiment macha allah quoi. gars yi fii dañu baax de. Euh, dugg tuuti rek si bi affaire parce que gis tey euh, la dame la bu nekk ci ministre de la santé di wax maanaam euh, yi nga xam ne Sénégal bëgg voyager il faut ñu nga fay quarante pour test loolu loolu moom vraiment dama seet ni loolu dëgg du yoon daal parce que comme dañu dañu au début affaire free la. normalement dañ ko doon continuer pour base bu jeex tàkk mais waruñu ciblé ay nit di leen fay ko quarante mille pour ñu mën a def test parce que affaire boobu ñu ñëwee personne sax boo xoolee ça n'a pas de sens parce que Covid affaire Covid bi dafa nekk loo xam ni mën nga test léegi nii dox deux dox deux pas ñu la dëgg dëgg loolu dëgg donc loolu boo koy jëlee si musique boobu da ngay jum quoi boo dee boo xam kuy tukku rek il faut mu dem testé ba pare garder sa feuille léegi même léegi même diggante aéroport bi nga dem aéroport mën nga mën nga fay garde virus bi wala virus avion bi tout ça li ñu doon def rek def comme au début comme au commencement nekk aéroport boo ñëwee ñu xool defal la température et puis surtout daal li nga def mais c'est pas obligé à payer quarante mille francs c'est la bonne chance gis nga vraiment gis nañ gis nañ loolu euh, am na ñaari cas Thiès am na ñetti cas Dakar am na yooyu je pense que il faut globaliser rek nga ne Sénégal yëpp tant de cas la bon mais ay contact fii rek fii la jógee yooyu am amul solo quoi dañu war a xool seen communication quoi bon troisième bi mooy su ngay kiiyee mais maanaam affaire euh, Covid bi ni ko américains yi géré te pourtant américains yi ñu naan bon ñu ay jurit mais nag dama dama seetlu ñoom ñoo gën a nekk ci biir Sénégal yi parce que ñoom li ñuy géré Covid bi actuellement. amul benn Sénégalais boo xam ne yaa ngi fii waxuñu nag ku dul fay taxe mais ku fay taxe nekk fii di fay taxe annuellement chaque semaine gars yi yokk la six cent dollars plus deux cent dollars deux cent trente et un ba dama dégg depuis commencement ba léegi nag. Mhm. ñëpp ko jot fii. dëgg ko dégg rek mu naan bon voilà gars yi dañuy wax naan dangam dangam c'est parce que moom daaw fay taxe parce que loolu Sénégal dañu war dañu war a yoon boo nekk ci dëkku daal jàmbur il faut payer des taxes annuellement. même bu fekkee da ngay bu fekkee da ngay taay dawal taxi nga jaay si mbedd mi jar na bu jot nga seeti benn benn comptable mu defal la sa révision nga fay taxe annuellement bu ko defee heure bu heure bu luy amee ko yàlla mais état bi jox sa xaalis chaque semaine te bu la semaine fii ñëpp a sa xaalis xam nga dañ yow rek laay déglu kay. allo yow rek laay déglu parce que xoolal Sénégal bi xoolal Sénégal koy gérer. di jàpp ay saako ceeb di ko gànnaar gànnaare ba ay loolu. te fii pourtant gars yi ñu ngi koy def yi di dimbali nit ñi mais ñi ñu ngi koy def mooy da ngay ñëw doo ci fay dara free dafa oto yoo xam ne ay taxi yoo xam ne loolu nga siy bëggee dañuy ñëw jël affaire bi bu ñëw dañuy koy tege si buntu bi rek dem dem seen yoon loolu moom Europe moom ay États-Unis gi te ñu aussi des musulmans quatre-vingt-quinze pour cent des musulmans bu dee mu mënuñu dimbali ci ci mbokk yi tabax baa ngi jot tabax baa ngi di jot am na xam ne dañuy xaar ay seen xar amuñ ñu génne xaalis ngir yàlla politiciens yi ah dégg leen bàyyi leen wax ci bari te ngay génne xaalis dimbale nit ñi ñu tempen tempensé nit ñi guddeeg bëccëg te amuñu benn njëriñ pour la société loolu nga war ngeen bàyyi waaw encore politique politiciens yi ñuy def parti politique yi aussi ma dama gis ni li ñu koy gérer moo baaxul parce que parti politique dafa nekk société démocrate bon ñi nga xam ne ñii ci parti bi ñoo war a génn seen xaalis di bu ko defee kenn du moom bi mais parti boo xam ne at bu chaque chaque élection yëpp kenn dem mais borom parti boobu élection ku wax mu saaga ku wax mu déglu mais loolu parti politique ah je fais des démocratie boobu boobu wax dañuy dañ ko woon ci parti politique mais yow da ngay nekk day bopp rek pendant plus de vingt ans ku la ku koo xool ci biir ku la ku la ñor nga dàq bu élection nga dem taxaw tëroo am dara tëroo am dara loolu moo fi nekk boobu léegi nag yooyu dafa war a jeex nag dëgg la jaajëf nit ñi am nag euh, vraiment bëgg seen képp koo xam ne amuloo patriotisme sa xol jaroo nga jaroo nga ne politique. politique foog nga bëgg sa réew. dëgg la bëgg sa réew mel ni vraiment si président Abdoulaye Wade fi nekkoon ku bëgg réew moom danga laa gis si politicien yi nga xam ne vraiment vraiment yu demee na Sénégal. Hmm. mais ñi def ñëpp ñoo yem seen bopp rek fi nekkoon seen bopp rek. Hmm. vraiment di nuyu euh, maa ngi jégalu nag maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi xaaba xaabaabal quoi. xaabaabal nga kay romb nga xaabaabal. waaw ah, maa ngi xaabaabal bëri maa ngi jégalu <laughs> Ah, romb nga xaabaabal vraiment sa papa bu nekk Saint-Louis. Ablaye ngi lay déglu mi ngi lay déglu jërëjëf vraiment macha allah vraiment mi ngi tàgg jërëjëf ngeen bi lay gërëm ngi lay gërëm bu baax ñu ngi lay gërëm yéen a rajo bu mag bi nuyul ma waa Amérique jaajëf Sud FM seen rajo 98.5 ci Sud FM seen rajo 98.5 boobu ngeen nekk ma leen ciy gunge ci tàlleen lamp yi Sud FM euh, noo def da ngay wàññi rajo bi ñu gën a mën a déggante auditeurs yi mu neex lool ci ñoom itam. allo oui. Oh, kooku ah xanaa ki nga doon woo ki waaw. man la Ibrahima Masek chef coutumier. Ibrahima Masek. Diop. waaw Ibrahima Seck la Dior. waaw. waaw noo def waay. maa ngi nii rek. tonton Ibrahima nag yi tey. sant bu baax. Diop Diop bisimilah. mu euh, ngi lay sant. jërëjëf. di sant émission bi. Mm-hmm. ñu ngi koy dawale. dëgg la. ñëpp am ci kontante. jërëjëf. nun euh, nag danoo ci dëj boo xam ni. Hmm. doy waar. Hmm. famille Lat hmm. ma mag bi xam ni nekk euh, li Lat jur ay sëtam moo ci mag. xam ni man maa yor kàddoom. moo mag ci sëtu Lat yi wala moo mag ci doomi Lat Dior yi. moo mag ci sët yi. ah sët yi voilà. ñi ñi sët ñi sët yi ñi Lat jur seen baay. ah voilà. papa dafa nekk mag. léegi mm-hmm. maa kàddu gi maa yor lépp. Mm-hmm. moom day mag xamatul dara. mu am ak mu am tiis wu méttee méttee méttee. tiis wi tiisu la. Euh, dafa perte jabaram. Euh, doom ji di ko yóbbu. accidenté ci yoon wi. tey ji mu gaañu. allahu akbar. wallaahi ndeysaan quarantième jour bi tey. kon moom moom moom soxnaam ak doomam ñoo gaañu. wallaahi fële fële fële fële fële fële Sénégal yëpp yandu. te waaw waaw waaw metti. dëgg la. xam naa président bi yëgu ko. Hmm. Euh, ci la ñuy euh, kooku euh, tonton Ibrahima la jor bu mag boobu ka te jur baayam nu mu tuddoon. ki moom ma sekk ko jur moom ma sekk ma jur ma sekk ko jur. ah yéen ñaar yéen a bokk bàyyi. waaw ma sekk ko jur ma sekk ma jur. Hmm. kon sa sa mag la woon. waaw sama mag la moom. ñi la koy jaal ñi ngi lay masawu di ko jaal. moom Abbas. waaw Abbas a ci topp. ab mooy Abbas mooy Abbas. ah Abbas si boppam la. waaw. Ah, ñu ngi la koy jaal. ñi ngi la koy jaal moom gaañu ak doom ji. ñu ngi la koy jaal di la massa waaw waaw ak famille bi yëpp ñu ngi ci. yàlla na ko yàlla xaare aljana baax a baax dëgg la Diop dëgg la dëgg la bu a baax dëgg la Diop massa ndax ku amoon euh, solo la lool dëgg la ko loolu dalee te xamatul dara fi mu ne mm-hmm. day metti lool mm-hmm. yëg na ko yëg yëg na ko ay yëgu day mag la xamu ci dara xamu ci dara kay xamu ci dara mag la bu leen ko wax dara bu leen ko wax dara bu leen ko maa fa nekkoon mm-hmm. loolu ñu ngi koy yëgal waa Sénégal ndax Sénégal itam ñëw nañ fa lool Sénégal yëpp ñëw nañ fa. ndeysaan. ñoo ngi koy yëgal it njiitu réew mi. fan ngeen ko dëjee. tu fii ci HLM. ci HLM ok waaw ci HLM. ñoo hmm. ngi ko dëjee HLM. Massa ñu ngi la koy jàll. waaw. jërëjëf. Mhm. xam nga Sénégal. Hmm. loolu ma dégg ñu naan nañu seet ku ne. ministre bu ne loo yor nga bind ko. Sud FM. Euh, dañoo wàcc yoon wi. ci naka. xam nga Mamadou Dia. Hmm. dafa jëloon xam nga Mamadou Dia li fi ne yëpp Mamadou Dia moo ko fi def. Hmm, ci lan. préfet gouverneur sous-préfet administration générale yëpp. Hmm. coopérative SICAP. yëpp Mamadou Dia moo ko fi def. Senghor da ko ni woon moom du gouverner parce que ñemewul Sénégal Mamadou Dia ni ko bàyyi bàyyil ma nekk sa Baye Fall. yow del présenté conseil des ministre rek man ma nekk Baye Fall defar réew mi. li fi hmm. nekk yëpp Mamadou Dia moo ko fi def. waaye bi nga xamee nii nit ñi bëgguñu ni mu doon gouverner ndax bëggoon nañoo lekk xaalis bi. Hmm. mu tukki bi mu tukkee député yi yokk seen salaire bi mu dellusee mu ne du ci dal kenn ku ne li nga jëloon sama gannaaw na nga ko delloo lée ko daane ñu ni mu ne leen kenn ku ne li nga jëloon sa gannaaw na nga ko delloo député yi mer ñetti fan après ñu defar benn projet de loi indi ko assemblée ni ko léegi dañoo bëgg a retirer sunu sunu nekk autonomie financière maanaam di fay sunu bopp sunu budget nun nu géreel ko sunu bopp nun voie fii ci nekk ci assemblée mu ni leen du ci dal loolu mooy motion de censure bi ngay dégg. Mhm. Sen ni leen du ngeen ci dugg du ngeen ko laal motion de censure bi ñu ni ko danañ ko wote mu tëj mu tëj assemblée bi ni leen du ngeen ko fi wote léegi nañ dem Rufisque. ci kër ñu ci parti bi. ñu dem ci kër. ñu dem Rufisque déedéet booba parti so parti bi këram a nga Rufisque. Hmm. parti bi. Hmm. booba parti bi siège social baa nga Rufisque. Hmm. mu ne nan dem Rufisque fa la siège foofu foofu foofu maire bi ne mairie bi nekk léegi. moo fa la parti foofu la parti bi nekkoon. mu ne leen nan dem Rufisque fa lañ daan dem discuter ko ñu bañ daal di rocc ku dew kër Lamine Gueye. wote fa wotente ba ma nekk fukki député ak juróom-ñaar fa ñu wote loi bi mooy motion de censure bii nga dégg ñu daane ko ñu wàcce ko ñu wàcce ko mhm. ndax dañ ko bëggoon a wote assemblée mu tëj assemblée bi ñu daw bu kër Lamine mhm. fekk na booba Senghor mi ngi manœuvrer Senghor mi ngi waxante ci suuf ak Alfred Diallo mhm. général Alfred jàllo pour seet nu mu ko jàppe la Mamadou Dia yëgul ci dara. pour ñu ñëw ni Mamadou Dia ni ko attention Senghor a ngi lay waaj a jàpp comme Mamadou Dia dafa defoon Baye Fallou Senghor. dafa mhm. nekkoon Baye Fallou Senghor. Mhm. won ko ni ko man sa Baye Fall laa ñu ñëw wax ko ko mu ni ah loolu ay waxi waxi caaxaan la ndekete Senghor a ngi ràbb di ràbb di ràbb ba mën koo jàpp mu ànd ak Jean Alfred Diallo. guddi gi nga xamee ni bii ci wote nañu. Mhm. ci guddi googu la yebal ñoom Jean Alfred Diallo ñu jàpp ko. ba Mamadou Dia demee ba léegi da ngay xool li xew ci la ñu ubbee neex def lu neex buñ la ne boo la joxee ministre comme lii ki génn léegi wax buñ la joxee ministre euh, budget bi nu la neex nga def ko. Sud FM bu dee mairie nu la neex nga def ko amul contrôle bu dee ñi nga nekk ci gouvernement bi yëpp daal bunti xaalis yëpp nu mu la neexee nga lekke ko du mujj fenn. Sud loolu la mu mujj bañoon moo tax mu daanu nu continuer ci di ci wéy ba léegi. Sud FM euh, euh, ñi remplace Senghor di ci jaar di ci jaar di ci jaar ba agsi fii. te gisagunu bunt boo xam ni moo koy tëj. léegi euh, bunt boobu bunt boobu ko nar a tëj. xam nga réew mi euh, yàlla dimbali na la ñu mel ni yow xëy na am nañ fi ndax ay mag yoo xamante ni fekke nañu démb fekke tey te bu fekkee fekk yàlla dimbali na leen ngeen fekke démb fekke tey am loo xam ne amoon na démb te ñi ngi koy def tey te bu ñu xoolee dina am fu ñu yóbbu suba te du gën. yan pexe lan war a teg ak fan lan war a mën a jaar ba éviter loolu maanaam moytu ko. li ñu mën a def mooy ñu seetaat suñu bopp parce que di séddoo littoral bi di séddoo suuf si ci biir biir Sénégal di séddoo kees yi ku ñu jox rapport nga lànk ni man duma ko xool te rapport bu ñu la ko joxee. dañuy ñëw seet la ndax da da ngay yor budget nga jël budget ba def loola neex ñu indi rapport nga ne rapport bi duma ko xool xam nga kooku kooku boobu gouver boobu gouvernement day nekk day nekk lu doy waar te normalement boo defee rapport rapport bi dañ ko rapport bu mën a doon ak ku mën a doon rapport buñ ko jëlee dañ ko war a jébbal procureur procureur def li ci war France bu dee loolu noonu lañuy def gis fion dafa naroon présenter président de la République. Mhm. doo fekk moom itam da doon yàqal benn waay. Mhm. waaye gis nga foofu dañ lay topp ñu la di koy topp ni ko nuus liñ ko toppee lu mu bi mu nekkee euh, député da daan fay jabar ji. Mhm. da daan fay jabar ji wutal ko salaire. gaa yi ni ko nag sa jabar ji da ko daan fay. te sali te liggéeyul te bokkul ci administration liggéeyul danga daan fay te liggéeyul nekkul ci administration liggéeyul fii mu ne ci lañ ko jàpp ba fii mu ne ñu ngi ci tëj ko bañ koo tëj benn dërëm du génn mais li nga wax nii nan lañu mën a def ba freiner loolu ni ñu ko mën a freiner mooy bu fekkee ni lu baax li bu ñuy wax tudd bu ñu tuddee tudd France ñoom du ñu tudd lu baax li ci France toujours lu bon li ci France moom la tudd waaye bu fekkee ni par exemple jàpp nañu fi yow fii ñaata ñaa ñaata bi rapport moo fi ñëw yoo xam ni rapport yoo xam rapport yi tey ku jàng journal yi da nga xam ni lii amu ci lenn loo xam ni luy dëgg la te itam nag réew mi defuñu ko pour budget bi ñu di ko saax saaxee ku mu neex nga jël lu la neex déedéet ku mu neex nga jël lu la neex danoo war a am ay ministre yoo xam ni ay gor lañu yu mel ni du Dia Mamadou Dia amul kër comme noonu comme noonu mu ko waxe Senghor amul kër ab Diouf amul kër am na fi ministre yoo xam baay Ahmed Diop moo doon questeur à l'Assemblée nationale Baye Ahmed bi ñu ñëwee mu bëgg rendre démission daf leen a mu ñëw mun leen coffre-fort baa ngi nii ñu indi coffre-fort bi def rapport yi ba pare mu ne nañu wàññi xaalis bi ñu wàññi xaalis bi ñu wàññi am xaalis bi excédent ci xaalis bi mu amoon ak weccet wa excédent bi mu amoon ci compte bi ci ci coffre-fort bi excédent ba xam ni fay na ba am excédent lii moo ko moom da ko faa wecc ak weccat wa ñu leen soxlawuma ko façon nit yooyu loolu amatut léegi xale yi ku ñu yéeg li ngay njaan mooy bu ma amee six mois dana am building mm-hmm. bu ma amee six mois dana am ay milliards mm-hmm. bu ma amee six parce que diw am na ko bu ma amee six mois dana am littoral bi danaa ci am les pieds dans l'eau bu ma amee six mois petite cote danaa am les pieds dans l'eau vous écoutez Sud FM parce que diw nekk na milliardaire. seen rajo gouvernement bi la ko jëlee man danaa nekk milliardaire gënuma am na fi ay bateau pétrole yoo xam ni yii bateau pétrole yoo xam ni loolu nit ñi dañ ko fàtte loo war a mat juróom-benni bateau pétrole yoo xam ni genn wàll gi ndox la genn wàll gi gasoil c'est des milliards am na ñoo xam ne ci la ñu am seen xaalis. ñu ngi nii di ko dégg loolu xam nañ ko. Mhm. ba tey pétrole yi yoroon Sénélec bu ñu jëndalee Sénélec pétrole bateau bi dañ koy xaaj genn wàll gi ndox la genn wàll gi gasoil nga am ci lu war a mën neuf bateau mu nekk combien de milliards c'est des loolu mi ngi fi. Mhm. te kenn waxu ci dara dañ ko bàyyi mu jàll. yooyu yëpp dañ ko bàyyi mu jàll yëpp dañ ko bàyyi mu jàll yëpp dañ ko bàyyi li ngay wax noonu ci wàllu ba baril pétrole yooyu ak gasoil boobu ci ak ndox mi waaw ci jamonoy kan la ak kan moo ko def xam nañ ci am na lu ñu ci xam mais auditeurs yi déglu ñi ngi déglu bëgg nañ mu leer aussi itam waaw ci loolu ci jéego ci ci Samuel Sarr la ci Samuel Sarr la ci tudd Samuel Sarr ba itam ak ak ak ak ak Baba Baba Diaw ngi leen ci tudd oui waaw d' accord. ñi ngi ñi ngi lay gërëm ñi ngi lay gërëm bu baax a baax euh, tonton Ibrahima moom nag euh, sët la ci la joor ñu koy massaw dellu di ko jaal également magam jooju yéen ngi ci Sud FM seen rajo le choix de la différence 98 point def leen rek 88 628 98 98 33 841 22 33. Sud FM. seen rajo Sud FM seen rajo. noo def. alors fii de. waaw. xale bi ci kër gi. ah xale bi ci kër gi yow ana waa kër gi. ñu ngi ci kër gi rek. naka kër gi ba ça va. ñëpp a waaw. foofu ci bato yooyu la wax. Hmm. bato pétrole yi. ah. Hmm. waaye accord de pêche yi fi lañ fekk. Hmm. ak yeneen ak yeneen gis nga Sénégal ñoom yi ñun ñëpp a. pour fëriñ. ku ci wax mel ni yent yàlla Moussa ku ci jëf mel ni Firaaw na dañu waxante dëgg te yàlla tax réew mi xaaj ñu ngi fi ah ñooñu jël alal ji rek bàyyi nit ñi fuñ ko teg ci benn boo nit ñi sax léegi dañoo sadik xale yi sax léegi dañoo sadik ñu ngi kër sadik yi ñooy jëri sadik ndax xam ne ñii alal ji lañ sàcc si ñun ñu ñëwagul nag si bi la xaar may ma yàgg doon wax xale yi ku ñu jëli yërëm leen sonn nañu. ñun hmm. Sidi fu ñu jëm Sidi guddee Sidi Sénégal yi oto yi dawal barki alxuraanu karim liggéeyuñu ko fu tegal kaamil ma waat ko liggéeyuñu ko damay xalaat sax aleer yoo fii est ko sax jël jaay ko man loolu laay xalaat ah Sidi. Hmm. aleer yoo fii est-ce ko jël jaay ko. Hmm. guddee saaf a gis tey tey ngi déglu président ñu naan nañ def parce que compte seen xaalis. mais nañu waxante dëgg lang na <laughs> waaye retour nekk hmm. hmm. xale bi ci kër gi. Idy. waaw. lan mooy homme d'État dama xam lan mooy homme ah, mooy ki ne xanaa kiy liggéey te féeteeg état bi rek nekk ci. nga gis li dafa mel ni dàgg na xale bi ci kër gi ak waa kër gi xale bi ci kër gi ñu ngi koy gërëm baax a baax moo nekkoon gone gi ci mbedd mi yàlla daf mu takk jabar am soxna léegi tuddee boppam xale bi ci kër gi xale bi ci kër gi laggal ca kër ga. on va marquer une pause musicale avec euh, l'incontournable euh, groupe Xalam l'incontournable Xalam 2. le groupe de Xalam 2 la bande à Henri Guiabert Moustapha Cissé. kundul Souleymane Jules Faye Cheikh Tidiane Tall yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko aljana uwe uwe uwe yonteel ak waa kër gee waxtaana ak ñoom ndax àdduna benn bés la kañ ak waa Faye mi ci kër ge ak kii Souleymane Faye mi ci rajo bee. Souleymane mi ci Sud FM mos nañu waxtaan mu ne ma. ma ne ko mais yow bëri nga jaar-jaar de yow sa jaar-jaar ak euh, sa dugg-dugg ak say affaire ah euh, rawatina sa nekk Europe ak euh, sa xeeti waye sa xeetu wayin loolu lay inspiré <laughs> mu ne mais man li may inspiré du lenn lu dul li may dund ah, naturellement ce que je vis au quotidien rek laay xool di ko way ah loolu rek may inspiré ma laajaat ko ni ko mais Souleymane yow maa ngi fàttaliku demoon nga fi bitim réew yàgg fa mais boo boo làkkee français vraiment accent sa accent da accent tubaab la vraiment tubaab la français bi moom da nga koy sentir quoi mu ne ma nag kaay ma la benn secret gis nga man su ma demee bitim réew du ma fréquenté Sénégalais yi ma ne ko waa déet waay mu ne ma non du ma leen fréquenté su ma leen fréquenté du ma li ma bëgg a dégg <laughs> mu ne ma nekk naa li tax sax ma way variété li tax ma ay ci lool mooy dama nekk bi ma nekkee Europe dama doon dem di fréquenter ay tubaab lu bëree bëree bëri pratiquement woy yu bëree bëri euh, bu làkkee fran italien nga dafa dégg italien bu làkkee français baat bi dafay ça colle avec euh, le langage alors bu làkkee itam euh, li nga xamante ni moo di olof noonu waaye bu làkkee anglais noonu li ko waral mu ne ma su ma demee bitim réew li ci ëpp duma ma sénégalais ya ndax su ma leen fréquenté du ma am accent bi ma soxla damay wuti beneen accent ma ne ko sa ñëw itam ci groupe xalam mu ne ma xam nga xalam nag plus de cent artistes jaar nañ fi ma ne ko waaw mu ne ma mais man maa ci gën a spécial man lu ma woy eh, it la ma ne ko loolu kay dëgg la moom euh, loolu dëgg la ñuy nuyu kundul ñoom Abda Ibrahima euh, euh, di nuyu également di ñaan yàlla sunu xarit ba ndeysaan Cheikh Tidiane Tall yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla xaare aljana euh, Henri Guiabert ñu leen di nuyu bu baax a baax Tafa Cissé alors euh, di leen jaajëfal groupe la boo xam ni euh, booy bëggee déglu musique au vrai au vrai sens du mot ay not di génn ngay déglu harmonie di déglu vraiment musique ah ci jazz ci ci ci rock ci blues da ngay déglu xalam xalam fépp la ñuy génn macha allah. alors ñu dem déglu ñu dem jël benn auditeur ci 88 628 98 98 lu ngeen bëgg a dégg ci musique démb topp leen ma ci samedi bi 14h ba 17h ñu ànd bégalante ànd fàttalante euh, Sidi Gueye am na ku lay woo de wóor na yàlla si Gueye wuyul Sidi Gueye wuyul Sidi Gueye wuyul Sidi Gueye wuyul wax dëgg yàlla. wuyul ki lay woo. muy wax rek waaw. mbeng mbeng mbeng maa ngi lay ziar mbeng géy géy kenn nga léegi jéego ah kenn nga jéego de dégg boobu de man kenn nga jéego jéego teg naa jéego waaw ndan nandite jéego waaw ndar la ndar sama waaye sa waay la ma nga ndar jéego sama ndar ma nga ndar Souleymane waaw ndar waxtu mu ne ci ku baax jéem na ma dugal ci musique bi sax ma lànk ni ko mën Ablaye Wade rek. <laughs> mënoon nga cee dugg nag. ii def na lu ne pour jéem ma dugal mën ko mu ko Ablaye Wade rek man sama musique xam nga li mu gis ci yow ba ne la dugal ci musique xam na ko. léegi lool sax ma topp ba taay. ndeysaan. topp na ma fi ma fréquenté ma saa yi ñëwee yëpp ci may ma mais nuyul ma ko ndaanaan la. ii la te nit ku baax la. nit ku baax la moom. amul benn problème. dëgg la Souleymane ku baax la. maa ngi nii moo Diop Massamba Italie. waaw. borom montagne libaloo ndeysaan dellu yaat di nuyu di nuyu yaat rek soxna su baax soosu man ma ko bàyyi gannaaw mhm. ndey jaañ siir goro Fatima Fall maître huissier mhm. ku baax ci yow nga baax ci moom ndax ndey jaañ siir dafa baax dafa nekk jigéen ju mën a boot dafa nekk seen mag ba pare wàññeeku féete leen féete ndey féete leen tànku baay boot gala jaañ siir boot bu rafet fonk Fatima Fall gorom boobu def ko doomam rek Fatou bañ Fatima Fall bañ nekk ba Tata la koy wooyee Fatima Fall yaayam Adja Fatou Mbeng gërëm na ko baayam Ahmed Fall gërëm na ko intellectuel bu mag ba ndokk bi mu sëy ku mel na Jaañ Siir moomu gala Jaañ Siir moomu naa Jaañ Siir intellectuel bu mag boobu ñaari doomu intellectuel lañu di la xamal li waa ji wax léegi naan Senghor ak gaañu amuñu kër Abdou Diouf am na kër mi ngi fii ci Looda avocat bi si soxo am na kër mi ngi fii ci looda ña fi nekkoon li tax deux mille ba léegi ñooñu wuteeg ñooñu dañ daan digge te daawunu def dañ daan teg birig rek wane gannaaw Abdou Diouf politicien Senghor a xëyam ko jox ko réew mi da daan digge rek te def Senghor Casamance bu ñu deexee ba tey naan la indépendance Senghor leen ko digoon ba mu jur la daw jox ko Abdou ndax moo leen ni woon mille neuf cent quarante saa yu ngeen ma folee danaa dog buumu njaam te danaa leen wute indépendance magu joolaa yi daal ne ejaw eh, ejaw eh, ejaw eh, ànd ak moom bu masaan ñëw rond point Amri Badiane bindoon naa moom la leen di wax bu ñëwee place de gaaw moom la leen di wax bu ñëwee stade de moom la leen di wax ma xoox taxoon kaasa di man te yëpp ànd ak moom mu jël waa kaasa di man te yëpp fol ñoom Émilie Badiane ñoom Louis Dacosta ñoom ñoom waa ji ñu naan euh, Etienne Kanoualo ñoom Mamadou Abdoulaye Sy ñoom Assane Seck ñoom Insa Ndiaye député ñoom Famara Mané ñoom Alioune Badara Cissé ñoom Alioune Cissé ñii ñëpp daf leen a foroon ak Aji Diop ak kun naan eh, Kulis Touré ak kun daan wax Aji Dior ak kun daan wax bëggul jax neel Abdoulaye Wilane moom tuut na ci pièce gone la ci ba mu ci duggee yàggul xamul réew mi ndax Senghor li mu fi def da daan digga alala ma nga la muy rawale man ko rawale ca Normandie fa la ko bàyyi kon li muy wax na xam li muy wax Ablaye Wade dafa ñëw defar réew mi moo wane démocratie moo ubbi yoon yi moo ubbi réew moo yee réew mi defar njàng mi defar dëkk bi assimilé loo leen ay million lañ daan wax ba mu ñëwee lañ commencé wax ay milliards wàññeeku assimilé seen ndakaaru ndakaaru bu dëkk war ngaa xam yow Pikine tali bu mag alkali moo daan seen cinéma boobu amagul woon préfecture ñetti station moo fa amoon teel ak BP ak Texaco ca koñu ca koñu Ikotaab cinéma Al Karim booba temps naaru libaan ba fa ne dend ak Al Karim ak munu boulangerie bi dend ak moom marché cinq booba yegg seegul Dominique rond point Pikine booba Pikine amagul rue dix tëli bu bees fa ne ak Ikotaab rue dix amagul tëri amagul Las Palmas amagul fii wax naan la Parcelles Assainies amagul guy Fatou may ga googu Xaadim Samb di wax biig booba fa lañ daan ndëppee caaray Serigne Diallo fi nekkoon Serigne Diallo ba ngay dem kër kër Massar Fall yoroon camion suuf yi daan yor benn yi li ci def la ba ngay dem gaar ba ba camp militaire ba foofu gis mbooy la foo tëli seen sa bopp Abdou Diouf bi mu ñëwee la Abdou Abdoulaye Wade bi mu ñëwee la defar réew mi def leen woo xam ne ndar gi ci la ko defaree dëkk Abdoulaye Wilane boobu ci la ko defee ci la defar Ndar gii ba Pikine gi nekkoon dex moo ñëkko waññeeku soppi kay étage ak i téléti goudron defaral na pomu Faidherbe bi defaral na pomu pomu Ousmane Seck Ndiaye nekk pomu Moustapha Malick Sud FM Seen rajo bi njëkk dafa newoon def pomu loola dekkil nu Ndar defaraat réew mi yar réew mi assimilé leen du seen morom nuroowul ak ñoom PS mënu fee dësi ku leen xam sax xam damuy ëppee xam ne liggéeyunu jaajëf euh, góor gi El Hadji Alla ngi ñu ngi koy gërëm bu baax a baax yéen a ngi ci tàlleen làmp yi Sud FM seen rajo ci ñu dem jëlee ni beneen auditeur di fàttali rek ni tàlleen làmp yi moom moo leen di gunge tàlle làmp yi mooy seen émission bi ngeen di béggee si liggéey ngeen ci àndal Sidi Gueye euh, yaa ngi doon wax léegi ci Souleymane Faye waaw yée kenn du moom Souleymane Faye su may fàttaliku euh, bi mu nekkee xalam dafa marqué époque ci xalam. ñëwam ci xalam itam ñu bëree bëri tey ñëw nañ xalam mu ngi jaar ci loxol Prosper Abdoulaye ñaa xam ngeen Prosper Abdoulaye ñaa dafa nekk artiste boo xam ni euh, dafa am benn nekkin bu mu nekkoon ak artistes yi nga xamante ni ñoom la daan liggéeyal tey jii ñu bëri tey boo waxee ñu ne la Prosper Abdoulaye Niang moo ma jàpp ci loxo dugal ma xalam kooku ku baaxul doo ko def loolu ko ku générewul il faut nga am benn générosité pour mën a def partage boobu Euh, fekk sa moromu artiste moom am talent nga jël ko xëcc ko dugal ko sawet wet bokk ak moom liggéey booy def loolu ku mënul ku baaxul doo ko def ku yaatuwul doo ko def kon nag euh, ñu ngi koy jaajëfal baax a baax yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko aljana di Prosper Abdoulaye Niang waaye itam Souleymane Faye am na fi benn jamono mu lëkkaloo ak ndaanaan bu mag di ndaanaan boo xam ni seen liggéey yàgg na lool waaye mu produire nañu ànd nañu liggéey album yu bare bare mooy kan Robert Laout Robert Lawood invité naa ko fii ñu toog waxtaan lu yàgg yàgg ngeen dégg ay kàddu yoo xam ne wax na ko Robert Lawood day gàddu gitaaram di ci def lu ko neex mën ko lool itam waaye noonu la mën a arranger noonu la mën def euh, prise de son ci wàllu studio àndoon nag kooku di Souleymane Jules fay Diego ànd ak Omar Sow ak ndaanaan boobu Omar Sow nga xam ni ci wàllu guitare kenn mënu ko ndaanaan la waaye Robert Lawood ni muy woyee noonu ni muy gitaare noonu lay këree Cheikh Tidiane gunge leen Cheikh Tidiane kër gi ar def arrangement yu am solo ci wàllu musique dañuy déglu morceau boo xam ni dina marqué sénégalais yi ci répertoire Souleymane Jules Faye di morceau boo xam ne mooy morso bi ñuy déglu di euh, Abdou Gueye di rock nag rock lañ ci joué moo tax kenn njëkkut a joué rock kii di Souleymane Faye waaye su may déglu baat bi ak ni mu introduire way wi sama xel day dem ca sunu yaay ja sunu maam ja su amee narta faal yàlla na ko yàlla yërëm te dëkk ca ndar géej ca jéego ngoog ñu dem bu nit ñi xëyee wut ci xam ñii lu ñu am nga nekk ci kër yi nelaw ba saay na neexee ab liggéey yeewul naaj na ginaar gi sabati na ab liggéey bàyyi ma sama jabar koy cokkaas bu ko defee sama xol bi naqari duma xam nu ma la koy waxee ab liggéey xanaa li nga nekk teew ko ginaar gi sabati na waaw waaw waaw. Omar Sow. waay. ah bi ngay bàyyi ko sama jabar ginnaaw mbay ngay toppatoo ginnaaw bi. bu ko defee <laughs> sama xam dina tey duma xam nu ma la tey waxee. <laughs> ah bi ngay xanaa ni nga nekk tey bët set na. ah bi ngay bàyyi ko sama jabar ginnaaw mbay. ñuy cokkaas bu ko defee sama xol bi naqari du ma xam nu ma la koy waxee am gi man siiru ma damay bañ ku ma yeb gi njooro yes Sud FM vous écoutez Sud FM Sen Radio ñëwal nañ waxtu julli jot na daan sa doole baax na sama waay Abdou sama xarit nga Abdou moo tax ma wax la sama waay Abdou gi baax ñu wàcc ba nga nopp lu nga dem ci kër yi waxtaan saay la neexee Abdou gi baax ñu xëy wut ñu am nekk ci kër yi xuloon ji yeewul nañ na ginaar ji sabati na àddu gi yeewul nañ na mm-hmm, ginaar gi sab na aha ndikili set mm-hmm, gi yeewul nañ xanaa ni nga lekk teeko kon àddu yeewul nañ na yeewal yow. yeewul naaj na Abdou Gueye yeewul yow itam. yeewul naaj na Abdou Dia ah. na. yeewul naaj añ jot na. yeewul naaj na. li naaj na. ginaar gi sot na. naaj na. julli jot na. yeewul naaj na. waxtu bare baax na. yeewul naaj na. Abdou sama xarit. album bi ki def kër yi maanaam ki ci nekk di aw nii di wax euh, mooy Robert Lawood mooy aw noonu ak Cheikh Lo Cheikh Ndigal Lo Cheikh Ndigal Lo Baye Fall bi mooy aw noonu ndax am na jamono joo xamante ni Robert Lawood dafa ànd ak euh, ku mel ni Omar Sow ànd ak Thio ci lañ tëggee woon album bi waaye ànd ak également Cheikh Tidiane ci jamono jooju bu ñuy fàttaliku ci lañ tëggee woon albumu Kumba Gawlo Seck ci lañ tëggee woon albumu yu bari yu Souleymane Faye ci lañ tëggee woon Papa Djibi Ba ci lañ tëggee woon également faatu Guéwal ci ay bi muy door waaye ci lañ tëggee woon également euh, ndaanaan yu bëree bëri ci Sénégal euh, bokk na ci maxu maxu lebu gi voilà ci lañ tëggal maxu lebu gi euh, tëggal ci artiste ci leen tëggal Cheikh Lo Cheikh nañ ko ci album jamono jooju ànd bi nga xam ni am na ci diggante Cheikh Lo ak euh, Cheikh Tidiane ak Robert Lawood ak euh, euh, Omar Sow Thio mbaay nekkoon na ànd boo xamante ni macha allah ci wàllu production musicale ci Sénégal. Euh, defoon nañ ay album yu neex a neex a neex yooyu dinañ ko ñëwaat di ko toj benn par benn lépp lépp ci musique Demba wax naa la liñ ci mën a wax bëri na liñ ci xam bëri na lépp pour yéen lan koy defal incha allah macha allah kon nag euh, mi li mooy taal leen lamb yee can can can can taal leen lamb yee <laughs> mais boo yow boo doon boo doon way gars yi duñ jënd sa cassette bi de wóor na yàlla cassette amatul grand cassette amatul dégg nga <laughs> léegi ay plateforme de téléchargement moom yéen ci Sud FM rajo ah looloo am waaw kaset amatul ah bon nag wóoruma de CD wóoruma lan moo am nag <laughs> non booy jot naa yow conseil bu ne jox nga ko saawaay ah yeewul naaj na bàyyil sama jabar ji ngay xool bàyyil sama jabar ji ngay cokkaas sama ginnaaw jabar ji ngay xool ba ko añ bi pare na ah ndekki li pare na lawal bi pare na mais yow li ngeen koy wax yëpp yow yow yow mais da ngeen a baax sax yow waa ji nekk fii di toj kër gi di nelaw heure bu ko neex di tëdd heure bu ko neex di yeewu heure bu ko neex di cokkaas jabari jàmbur nga nekk fii naan ko ay lewal bi pare naa ak añ bi pare na <laughs> waaw yet mu am na ñoo xam boo ko defee yet mu nganda lay génne kër gi <laughs> Souleymane Faye Diego ñu ngi koy sant ak gërëm bu baax a baax du ñàkk itam ñu dalalaat ko mës nañu waxtaan waxtaan wu yaatu déggoon ngeen ko fii ci Sud FM macha allah di artiste boo xamante ni li mu mën ak li mu xam ci musique walaay <laughs> bëgg naa xale yi jàng ci moom ah waaw waaw ndaanaan la su lay rek Souleymane rek Jules Diego rek ah waaye kenn du moom aje ñu dem jël yeneen auditeur di fàttali rek yéen a ngi ci tàlleen lamp yi waaw waaw tàlleel yi tàlleel lamp yi yokk cere dolli ñeex ñeex ñeex ñëwal 88 628 98 98 33 841 22 33 ci ngeen di jaar jokkoo ak Sidi Gueye yéen a ci tàlleen làmp yi Alsaan wax Alsaan nelaw ko Alsaan de pour man yow nelaw nga bu yàgg xam nga ba xemli ko ah mën a koo nelaw da nga am insomnie ah booy loolu booy sawar ak kooku booy il faut ñu jóg ci ah voilà waaye ñu jël auditeurs yi pare après ñu soog eggal ak yow ñëwal asalaamaaleykum. allo maaleykum salaam. waaw. ngeen yow moom soo doon way man moom xam naa ne du man maa lay produire. barke yàlla. maa ko wax. préparel bind naa texte yu dul jeex yépp laay génne dem way ko. baat bi moom soxla nañ ko feneen mais way moom. man de du ma la produire Youssou Ndour du la produire. ah yow lii nga may wax yaa ma wax yaa ma peeralaat nii. <laughs> maa la wax lii. yaa am peeralaat nii. pardon nag tey xaw a faj ma ah massa massa massa massa loolu mais ça va daal. massa massa massa baax maa ngi lay nuyu bu baax Sidi. maa ngi lay fay maa ngi lay fay ngeen. di jaajëfatal rek. jërëjëf. waaye di jaajëfal tamit auditeurs yëpp. sama mbokk auditeurs yi. dëgg la ñi nga xam ne dañuy toog ba heure bii duñu nelaw. walaay. di sant nag bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf macha allah tubaab sa rajo bi. ana suñu ministre bi Abdoulaye Sall. monsieur le ministre mi ngi dé mi ngi déglu tàlleen lamp yi de. mi ngi déglu waaye dañ ko gëj a dégg mu ah, intervenir mu ngi déglu de bu baax ah ñun de soxla woon nañ ko de ndax am nañu question yu ñu ko bëgg a posé waaw le ministre ana ñoom jekk mbaxane eh, ay ñoom ah jekk mbaxane daw na nu mu tuddati suñu américain bi you know you know wala moom campagne lay xaar fi na ne soxla nañ ko de parce que am nañu yu bëri yu ñu ko bëgg a laaj ah mais nag mais nag you know yorul décision jekk mbaxane yorul. Ah, décision aussi ñoom ñaar ñëpp yoruñu décision waaye dañ doon nekk ci rajo bi rek di ñu wax ay wax yoo xam ni doy na waar. Hmm. moo tax ñu soxla woon leen nag situation bi ba xam lu ci seen xalaat. dëgg leen ko wax leen ko ma dégg posé leen question. am na solo de ah pour laaj leen suñu auditeurs yeeg euh, Moustapha Cissé Lo keneen ak keneen. Hmm. waaw yooyu yëpp soxla woon nañ ko de. bon parce que Cissé euh, Lo moom comme ni nga ko waxee keroog nee nga Cissé Lo moom dafa mel na ñu bari ñemewuñ ko. Ah. da ngay wax di ko romb rek waaye doo ko tudd directement de. ah doy loolu mooy wax de. gars daal dafa moom de. ah Cissé <laughs> Lo moom droit au but. su ah. ñemee daal koy tudd directement waaye doo nekk di wiiri. ndaxte man dëgg la saaga yi kenn rafetlu ko. waaye Cissé Lo dafa nekk gor. xam nga man léegi su ma déggee ay nit yu toog naan hmm. ah hmm. président Macky suñu xarit la maag moom démb dugg na ci génn fi xanaa tey waaye keroog ba muy am problème assemblée nationale hmm. booba kenn nekkul woon xaritam ah. ñun ñii de Cissé Lo la ñu xamoon Mbaye Ndiaye la ñu xamoon dégg nga maître euh, Aline Badara Cissé la ñu xamoon yaakaar naa de bu ma juumul ku def en tout cas ñooñu daal ñoom feeñoon nañ ci bu baax a baax ñi ci des ñëpp après la nekk seen xarit mooy warkat yi nga xam ne dañoo jógee fee ñëw ba mu faroo ba pare ndax moom dafa wóolu woon boppam am jom am faydaam waaw hmm. léegi nag ñu nekk ba mu sotti nag ñu ñëw toog waaw xam nga loolu yomb na torop bu loolu weesoo man euh, si di affaire kii orix yi man dama ciy wax. Hmm. xam lu tax ma ciy wax. Hmm. alalu senegal la. xam nga tey jii su ma jëloon sama benn menuisier ne ko nañ dem fee euh, place benn place publique daal mhm. bu ñu demee nga dindil ma ban ya fa nekk ma yóbbu ko sama jardin est que am naa ci droit est-ce que loolu du alalu Sénégal ah, donc alalu Sénégal la orix yi dañ ciy wax gazelle orix yi comme ni ko jëf normal waxee sànq dañ ciy wax alalu Sénégal la hmm. tey jii damay dem rek man daal di toog wala ma dem comme étude am na ay temps banque yi ñu defaroon ci arrêt bus yi am na ñu ko doon wecci di ko yóbbu est-ce am nañ ci droit. ban ñii di ko def dégg naa ay fourneau ñu di ko def ay fer ñii di ko def n'importe quoi. kon léegi tamit suñu àll la ñun ñoo ko moom kenn moomu ko ba di ko jël di ko yóbbu ci sa réserve même benn puso bu Sénégal moom sax kenn amu ci droit di ko jël di ko yóbbu ci sa kër pour di ko ñawee du dëgg. Hmm. man nag looloo tax man ma kontaan ci sama boroom kër. waaw maa ko wax au effort. ah yaa wax lii dafa ne maa ko wax. xam nga lu tax ma wax ko. fii du sama boroom kër dafa nekk haut fonctionnaire ci Sénégal gi hmm. occupé poste bu ne. te depuis 83 ba léegi benn kër la am. Hmm. kooku jafe na de. te kër googu ba mu koy am professeur la woon da doon jàngale. ba léegi amul terrain amul kër. amul leneen dara ci ah. ma ne kon dara yokkuwu ci dafa gore rek. dara amul yokkuwu ci. waaye mi ngi am jàmmam boo bëggee boo ma joxee rendez-vous ma yóbbu la ba ci moom benn kër la am te ñëpp a ko xam ci Sénégal turam nag du ma ko wax. waaw xam naa. mais su ma ko waxoon ñëpp a ko xam. xam naa parce que bu ne occupé na ko. au fonctionnaire classe exceptionnelle hiérarchie A mais benn kër la am depuis quatre-vingt-trois man ba may dugg ci moom benn kër googu laa ko fekkee te booba professeur la woon loolu bariwul de. Hmm. kon tam tamit ay millions amu ci waxatuma laaj milliards. ba pare nag mu nekk une personne très discrète man de je suis très fière de lui. parce que bu ma tëddee macha allah tubaab fakkaar la damay nelaw ndax dama xam ne kenn du ko yee ni ko ñëwal nga génnee xaalisu Sénégal du bokk mukk ci liste macha allah tubaab fakkaar la te bu tëddee tam yàlla na yéex ci bàmmeelam du xaalisu Sénégal lay tax du wëlbati ko loolu dafa am solo. Mhm. Sidi loolu dafa am solo ci ci ci àdduna. macha ah? mais jëlut alal bi nit ñi di ko lekk ay orix ak ay n'importe quoi même bu ñu leen anesthésier xaalis yëfu Sénégal la Sénégal lañ ko may kenn mayu ko turu kenn loolu la il faut nit ñi dañ koy wax loolu la waaw parce que ku lekk loo xam ne moomoo ko fii lañ la ko fii waxee ba mu leer nañ ba pare aussi nga baal ma dafa am tamit lenn lu ma bëggoon laaj léegi maire yi nii n'est-ce pas que ñoom léegi normalement délégation spéciale moo leen waroon a remplacer. a ah, loolu wala loolu kay. ñoom jeexaluñu. jeexal romb nañ jeexal bu yàgg nga naan jeexal. xam nga jeexal nañu bu yàgg. kon nag suñu maire ba fi dugg sànq dëgg la ko ñun sud ñoo ko moom. mais moom amul ay terrain yu muy war a maye ak ay pàkk xanaa lu muy maye moo ko moom. Ah, wala da koo jëndoon sud sud la koy maye xëy na am na lu mu denc. xanaa moo ko moom. ah sud bu dul loolu. bu dul xam nga ñun suñu sañoon sax mu may sud Sénégal waaye man li may laajte dama ko bëgg xam daal parce que question d'éthique la dama bëgg a xam léegi kon meeru leer xaw ma fan ak fan njagañaaw ak ñooñu hmm. kon ñooñu am maire bi am na droit jël terrain bi ñuy xuloog Pape Babacar Ngom may ko ko ne ko am ma may la man damay laaj rek de comme lampe yi fii lay leeree moo tax hmm. may laaj ndax c'est possible euh, en tout cas ñoom daal am nañ pouvoir ba léegi. <laughs> doy na waar de waaye. waaye ba tax nga mën a maye loo xam ni li ñuy woowee bokk moomeel la. bu ah, loolu weesoo sànq Alioune nga moom musique bi sax xëy na mën na cee nekk ndax jéego bu ko réfléchir ba wax ko rek war na mën a ne waaye man pour man Alioune Mbengue bu philosophe la ndax man buy wax dama koy déglu bu baax a baax a baax ndax lu am importance lay wax gis nga toog bi tiitaroo naan nekkoon naa président de la république aw ma loolu de moom jarul tiitaroo nekk président vingt ans di nga dugg Sénégal ba génn kenn du xam ne dugg nga fi nit ñi duñ la yëg loolu de du ab tiitar Ablaye di nag bi muy am këram booba ñun ñi kay juddooguñu booba xalaatagul woon ni xëy na dina mas a nekk président kon nag loolu du tiitar Ablaye Wade tabax na fi ñetti université tabax fi ñaari hôpital bu jam ñaaja ak bu dalal jàmm xam nga suul jëf xaw ma sëkk jëf baaxul masul ker du ko teree feeñ. kon hmm. yooyu du ay wax. waaw loolu daal laay waxagum pour le moment. waaw ah. tout à l'heure. Guèye Ndioro ku la bàyyi nga dem dem demee noonu. Massiré ak Ñaay. Ah, ma ca ñaay ba <laughs> yaa ngi doon wax naan xaw ma suul kër xaw ma noo ko waxee ci baax suul kër du ko teree feeñ ah bon Abdoulaye Wade këram gi point yàgg na de yàgg na kër gi ñu xam dëgg dëgg dëgg boo ko laajee ku mel na ñoom Assane Gueye ñi njëkk a nekk chauffeur am ak man day booba xale laa damaa judd fees ko fi kër gi moom ak Karim këram googu point un e. dégg naa ku ñuy wax jàll picc moo ko jaayoon terrain bi moo ko jaayoon foofu kon nag tiitaroo naan nekk naa fi vingt ans aw ma fi kër loolu de du tiitar ndax nit moom da nga war a am luñ la xàmmewee moo gën boo ñëwee dal ci hôtel yi nga dugg ba génn Sénégal pendant vingt ans te kenn du xam ne yaa ngi fi loolu moom du tiitar moom lañ wax leneen. ñu ngi lay gën mu ngi lay gërëm merci beaucoup ngeen bi su FM seen rajo 98 point 5 nee na itam nan ko suul kër du ko teree feeñ te Ndiaga bay waxoon na ca suul kër du ko teree feeñ. buur yàllaay naaya te léeréju loo fekke kañaan fonkul buur euh, kañaan fonkul muñ te eh. mooy maye ñu dem nag euh, jëlaat beneen auditeur ci 88 628 98 98 33 841 22 33 di fàttali auditeurs yi rek ni tàlleen lamp yi di am ci Sud FM seen rajo talaata bu ne àllarba ak samedi bu ñu àndee waxtaan ba mu neex ànd bégalante ànd fàttalante kenn ku nekk indi sa xalaat ak sa xam-xam ci sujet yi nga xam ne mi ngi fii am sujet yi nga xam mi ngi am ci réew mi ay nit am ci lu ñu xam ay nit di koy def itam loolu la ñuy waxtaanee ci Tàlleen làmp yi Sidy Gueye jox avantage jox leen opportunité ngeen mën a ko rajo bi waaye dégg ci lu leen di jariñ dégg ci loo xamante ni dafay neex ci yéen dégg kooku ngeen koy dégg nag euh, bu ñu ko déggee tamit li gën te baax yàlla na booleeg ànd ak topp ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax émission bu rëy bu mag bi tudd di am tous les di mercredi ak samdi si liggéey di leen ci gunge euh, dana nekk ak yéen saa su dana continuer di nekk ak yéen itam lépp loo xamante ne ñu ngi koy wax ak di ko jëf ak di di ko addu ci rajo bi dañu bëgg rek dab seen bànneex dañu bëgg rek nekk ak yéen dañu bëgg rek jegeyantoo ak yéen dañu bëgg rek ngeen gën a jegeyantoog rajo bi waaye gën a xam itam li xew ci réew mi boo gisee nag ñu ni tàll làmp yi émission bi di am ci waxtu wi ci guddi gi yow mi nga xam ni yaa ngi soog a jàpp rajo bi nii te xëy na comprendre lan mooy concept tàll leen làmp yi tàll làmp yi émission la boo xam ni da nga fiy indi waaye da nga fiy jëlee ndax bu la neexee jël sa téléphone indi ay leeral comme ni ko euh, auditeurs yi di defee saa su ne dégg ngeen leeral yi fii Abdoulaye wilaan joxe léegi euh, ci digganteem ak euh, kóllëreem gi di Ousmane Tanor def na at ci suuf yàlla ko yàlla yërëm ak bépp way dawlu waaye itam jël na ay kàddu itam wax nan ko jëmale ko ci ki nga xamante ni moo di alaaji Aly Mbengue kàddu yi mu fi wax waaye Diouf normal la ngéyeen bi wax fii alors ngeen dégg auditeurs yi kenn ku jël la gën a bëgg boppam gën a bëgg di wane mbëggeelam ci rajo bi ku ne di wane ni maa la gën a bëgg rajo bi kenn ku nekk boo ko nattee ci sa bopp yaay gën a bëgg sa morom rajo bi ku nekk loolu di wane sa bopp yaay gën a bëgg sa morom euh, tàlleen làmp yi di nuyu itam tonton Ibrahima Diop euh, ca kooku di Mamadou Ndoye ma kooku di El Hadj euh, Diouf normal ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm Sénégal nag ñoo ko bokk te Sénégal gi àla kuliyal Sénégalum Sénégalu Sénégalais yi lay doon Sénégal gi Sénégalu sénégalais yi rek lañ mën a doon kon nag nañu fexe ba sénégalais yi gis seen bopp ci réew mi nañu fexe ba sénégalais yi ñu dimbali leen ñu mën a yëg seen bopp ci réew mi loolu mooy li nga xamante ne bu amee incha allah rabi kenn du jóge fenn di dem fenn wala di seeti lenn wala di bàyyi sam réew wala di xeeb sam réew Sud FM seen rajo émission bi toll na ci ñu jeexal ko ndax saa yu ñu mësaan toll fii. bay dugg ci li des ci émission bi dañuy bàyyi auditeurs yi ñu xool li dàq xool li gën ñu wax ko moo tax ma jëlaat benn auditeur mu war a. téeméer Siré bi joxal ma ko sama numéro. waaw d' accord. ah walaay ndeysaan. ngeen bi joxal ma ko sama numéro. ndeysaan. sama géer rek joxal ma ko sama numéro. d' accord. 522 48 65. d' accord. ñu ngi ah, lay jërëjëf ñu ngi lay gërëm ah, bu baax jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf amin amin jërëjëf mbay ngi fan la woo incha allah rabi incha ah, incha allah fan yi fan yi la woo incha allah bu neexee yàlla yàlla bàyyi na rek maa waaw incha allah rabi incha allah waaw maa ngi jërëjëf jërëjëf waaw jërëjëf ñu koy gërëm alaaji Alam Mbeng di euh, sunu père Euh, sunu papa ah day bañ père de El Hadj Aliou Mbengue nee na ma bés bu ma waxati père <laughs> de ma waxati père de bari ko yii génn naa ci yow man xanaa xam loolu laay bañ man su ma nit nee bul waxati lii du ma ko waxati ah maa la wax lii ah man doxuma ci daray caaxaan doom ah géey rek ah géey man doxuma ci daray caaxaan wallaay ndeysaan moo tax euh, ñu koy gërëm <laughs> waa. <laughs> non xam ngeen ne tabaski kañ la man tabaski ñëw na de gars yi neen ma Sidi ma ne waaw ñu ne ma Sidi mais siidi ana ana xar yi man leen ah ana xar yi mooy lan xar yi kay maag yéen ci yem man dama jaay xar man jaayuma xar ngeen naa ma damay ana xari yi xar kay nan ko laaj euh, borom xar yi rek voilà yàlla na ñëpp amay xar yàlla na ñëpp tabaski ci jàmm macha allah yàlla na ñëpp am li ñu bëgg ci tabaski gi yàlla na lépp am waaw ngeen tabaski ba desal waaw loolu daal lay ñaan yàlla. ñëpp am daal ñëpp am ñëpp am macha allah bon ci kanam léegi di ngeen am euh, waxtaanu fajar ak oustaz Mbacke la bu ngeen ci jógee dingeen am waxtaanu euh, kooku di di am waxtaanu oustaz Sall ci waxtaanu fajar buñ ci jógee itam dinañ déglu incha allah rabi première édition d' information bu Sud FM. ànd ceeg euh, du Sud Matin ànd ceeg Sista Maria ànd ceeg rédaction bi ñoom ñëpp ci 98 point 5 mu nekk loo xamante ni dina leen jëriñ dina nekk loo xamante ni daf leen di neex lépp lépp di amee ci Sud FM seen rajo 98 point 5 si liggéey ngeen àndaloon ci seen émission bu rëy bi leen di gunge di émission. taal leen lamp yi waay